Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. man moo wax la dara mais man je parle conseiller de la la. mais mais la loi mais yow déjà bu début bi tu as dit que la loi a été conceptionnée c'est des lois déjà qui ont le paradigme euh, euh, européen conceptionné par des européens et ton et cetera et cetera ñun ñun tam am nañ ay quand même mënuñu nekk di suivre insurrection loolu man pour man insurrection du lu Ousmane Sonko wax parce que daf ne c'est le moment ou jamais ñi ngay ñi ngay sàkkal nit. waaw ñi ngay sàkkal nit pexe waaw. maa lay déglu xam nañ loolu yëpp ok moi je te parle moom ak stratégie wam. Hmm. mooy benn instant lu Souleymane Faye doon waay la borom yàq du xeex ak borom fetal. waaw da ngay xam moment lu nekk par stratégie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam toog nañ treize ans treize ans yàlla di leen testé ñu leen di dóor di leen rey ah di leen mbéj yàlla seetaan ba jëlee ansaar yi soog a dugg ñu soog a ñëw conquérir Makka. yàlla moo moom asamaan ak suuf Jibril ba benn laafu Jibril mën na détruire waa Quraysh. Hmm. stratégie mon frère stratégie. yenn saa yi waroo wax même sorti woon boobu naan waaw waaye demoon naa waaye mais timing bi dafa am timing boo war a waxee. Hmm. loolu yëpp nag te ki gis am na benn vidéo benn vidéo buy daw benn benn photo euh, capture d'écran buy daw. Hmm. Euh, mooy ñu wane ko mu def yaramu neen nii waree. boobu man yëg naa ko bien avant. ah loolu la négligence am la yenn saa yi yenn saa yi gis nga ñun ñun daf ñu daan daf ñu daan dal. non explique lan la doon négligence am moom dañ ko photo mu def ya mu def taatu ne. wa waay waay dafa doon wax ak benn gel far gel bi kii ko capture d'écran nga xam la. wallaahi yëpp non attends dafa def yaramu neen la def yaramu neen. dafa am benn gel bu mu doon waxtaanal. Ah. waxuma dafa def lu bon. ok moom intention am du woon lu bon mais négligence am la. mais lan la négligé laaragul de lan la def lan. di wax ak gel bi. di wax ak gel bi. Ah. Ah. comprendre li ma la wax. far gel bi gel bi def capture d'écran mu koy wax appel vidéo far gel bi def capture d'écran. kon Sonko warul def eh, appel vidéo. waaye non non yooyu mais Morgan yoon eh Morgan damay dem sama yoon. non bul dem sa yoon nag bul dem sa yoon ndax rek ñu waxtaan nag. mais <laughs> non du question du question gars yi war a def appel vidéo mais moom du Morgan du Matar du Moussa Ndiaye moom la Ousmane Sonko bu am ay ennemis yoo xam ne dañ ko bëgg a jàpp. kon léegi yow boo amee ay ennemis dootoo dundati quoi dootoo dundati dootoo woo nit dootoo dootoo dox dootoo lekk. loolu moo tax nag ñoom Omar Ben Khadaan nag ñu ne boo boo leen bëggee def njit ñu ne ñuy daw. hii mais njit moom métti na di. parce que res non bañ a métti. loolu mooy doo doo génn jënd caaf doo génn jënd caaf. doo boo am am envie fonde dem naa ni fonde. mais Morgan tey hmm. tey mag yow ay gaayen lañu raay. Ah. ak ak am na ay booy yoo xam ne ay waay lañ xool instant mën nañu xuloo ba saagante ndey. Mm-hmm. xam nga lan moo ko déclenché lan moo ko déclenché Ousmane Sonko moo génn këram même bu nekk qu'ils avaient de bonnes intentions xoolal def na erreur boo xam ne xoolal conséquences yi am na kuñ ci gaañ loolu yëpp yàlla dina ko ci jugé. mais comment. mais parce que leader leader boo nekkee leader. ah xam nga ñun moo tax chaque fois ma naan Sénégal xam nga premièrement définition il ñu xam lan mooy leader quoi. ak ah, leader bi lan la war a gis nga tubaab bi tubaab bi loolu la ñu. waaw lan mooy lan mooy leader lan mooy leader leader mooy mooy malaaka wala mooy malaaka wala mooy yàlla. non du question malaaka waaw léegi kan mooy leader kon lan mooy leader. non dafa non non sacrifice yi ñoo bëri. Hmm. dafa laaj ay sacrifice moo too mel ni gars yëpp quoi mënatoo mel loolu moo tax yàlla di di di kii nit ñi pour ngay am ay conseillers. yaay gars yu la wër tout le temps leader bi naan amal ñu la wër. non mais Bebs yow yow attends attends Bebs man foofu noonu dama xaw a jaxasoo dañu waxtaan. da am benn capture d'écran boo xam ne Ousmane Sonko dafa def yaramu neen. waaw benn capture bu doon wër waaw. bu doon wër te du boobu te du boobu mu def yaramu neen mooy maanaam yow kon gis nga dënn Ousmane Sonko bi gis gis nga weeni gis nga gis nga ko quoi. non non non non du loolu mais c'est que Morgan encore une fois yow xam nga da ngay concentré wu ci ay yaramu neen bi. Ah, mais tamit dafa garaaw de. man man fii laay waxee man fii laay waxee xam nga fa laay waxee. Hmm. mooy loolu war guys ennemi bi daf koy use da ngay réfléchir xam fooy teg sa tànk man foofu la doy. non bépp waa léegi xaaral ma laaj la yow ñu dem ci yow yow am nga ay ennemi non. am na ay ennemi mais mais mais. ennemi dañ laa xañ li ngay wax yow dañ laa xañ li ngay wax yow. yow nee nga am nga ay ennemi mais est-ce que ennemi dañ la xañ la nga war a wax ak li nga bëgg a wax. non non defal naa encore une fois premièrement man jéem ma nekk président Sénégal. non mais mun nga ko doon tamit ah mun nga ko doon. non non non man Morgan mosuma gis ma jéem a jiite dara. waaw bu la yàlla waxee ne yow président nga war a doon nag. waaye non loolu yàlla la bu ko kiiyee waree ba loolu beneen niveau la. bu ko waxoon tey jii yow yow amu yow yow léegi xaar xaar xaar léegi xaar ma laaj la. Bebs yow ak sa doxalin est-ce da nga ragal tey buñ ne Sénégal yëpp ne dañ la bëgg a def président ragal da man dama am ay sikki sàkk de man nii. Ah, barke alxuraan du ma ko nangu. lu tax lu tax parce man i waaw imam imam sax imam. Hmm. bu ma ko bëggoon teg imam fenn wallaahi du ma ko nangu. mais lu tax amul lu tax. Hmm. gars yi non waaye xam naa sama bopp gars yi fii ku nekk ku nekk jaar nga ci underground man wax naa leen ko même bi ñuy wax bi ñuy rab bi ñuy rab di waaraate je vous man bu ñu analyser léegi day mel la ñu woon ñun ñëpp <laughs> parce que benn instant dañoo rab naan waaw xaw ma lan di wax yàlla mais bu ñu paree ñun ñëpp amoon ay gel ñun ñëpp doon gérer ci dañu waxante dëgg te yàlla tax. ok ku nekk xam na sa bu ne weng comprendre li ma la. Hmm. mais loolu moo la war a limité. wala mu mais loolu jamonoy gel la jamonoy gel la ba nga amee jabar téye nga sa bopp. non non ba nga amee jabar téye nga sa bopp. non ma wuy ma. Morgan il faut que comprendre une chose. te kooku yow yàlla la sax du yow nit yi yow yàlla la. non ah, yow bu nekkee ne man après damay jéem a jiite ah. Hmm. non non dafay nekk at man ak nit yi ah. hmm. parce que man man man samay plan booy Morgan xam nga temps dañoo ñu njaaloo quoi njaaloo par exemple. ñu def si damay wax dëgg ko la ñu wax te yàlla tax. Hmm. comprendre li ma nga am benn gel nga def lu neexul yàlla. mais xam nga toujours boo paree après da nga koy regretter boo amee tuuti imaan yaay fàttaliku am ay regret. mais benn instant man na laa gisee booy temps jolof booy day sedd guy booy nga war a sangu set. Hmm. mais gars non da ngay naan def erreur la. gëmmentu bi yooyu mais pour punir sam bopp il faut ma jóg ma sangu set bi ci seddaay bi quoi. mais man man lan moo ma jaaxal la sama que dama bay assumer. sa ok mais man lan moo ma jaaxal ci man lan moo ma jaaxal ci wax ji mooy. man yow frasque yi nga yor ci Ousmane Sonko yow kese yaa ko yor ci Sénégal ba Sénégal daj on est 16 millions mais yow yaa gis photo bi yow. parce que xam nga lan la gars yi dañoo tapet. ah bon mais 16 millions yi ñëpp a tapet. non non non dafa daaka de gars yi man man loolu sax dama koy reproché gars yi yenn saa yi mais damay ñëw ma dénoncé benn affaire mais gars yi am ñoo xam ni ci suuf lañ may woo di ngun-ngun yi gars yi ci suuf. mais man man moom man tapetuma yow jox ma preuve yi man wax nii wax ko ci mbooloo bi gars non mais man tapetuma léegi indil ma preuve jox ma preuve man ma ma ma ma ma yegee ko Sonko indil ma preuve may wax nii ne jàpp nañ ko muy muy muy muy muy snap moom benn jigéen xaw ma lan la wax bëgg naa ko xam jàpp nañ ko livre bi page cent trente-huit bi ne nañ ba léegi moom la ñuy xaar gisuñu moo gën ah. moo gën déglul déglul maa lay déglu man li la wax dafa leer man je part parle de négligence yow yaay wax ay jàpp nañ ko jàpp nañ ko man wax ko def jàpp nañ ko xam man Fatou Ka laay wax ah. hmm. mooy boo nekkee njiit buntu yooyu bu ko ubbi waxuma la intention man xam naa mën a nekk naïveté quoi man laa koy jàppee mais buntu yooyu noonu yow yaa koy wax mais ñun gisaguñ ko ba léegi doo ñu ci dimbale. buntu yooyu man man yónnee ma ko privé. waaye loolu du time pass moom la gars yi doon jéem a utiliser. waaye looy wax wax ba loolu ah xoolal même saa boobu affaire waalo bi waalo. Ah. dafa ñëw. Ah. waa Pastef waalo yi. Ah. invité ko. loolu danaa la laaj source bi tamit ay source source parce que même prophète bi. balaa ñu ko gëm dafa indi source ah. xadis yëpp pour source la am waaw léegi ñëwal. et puis yow bu ñu paree émission bi nañ ko def à suivre incha allah. waaw incha allah. waaw <laughs> ok léegi wuy ma léegi wuy ma. Ah, ah. négligence man waxuma la dafa man wax encore. waalo waalo waalo waalo lañ nekkoon waalo. intention waalo lañ tolloon de mauvaise intention waa déglul rek déglul. waaw waalo bi ngay yeggali léegi. Hmm. moom fa laa jëm ci waalo bi laa jëm. ok moom problème bi mooy euh, dañ ko invité foofu waa Richard Toll parce que Richard Toll waalo côté yooyu ah. Hmm. léegi. moom bi gaa yi ñëwee jëlal ko hôtel. Ah. léegi beneen gel jëlal ko hôtel aussi quoi. beneen gel. gel bi moom lan lan la. alors c' la moo important. <laughs> ah gel boo nee gel rek dafa garaaw. non xaaral mun na nekk magam mun na nekk rakkam mun na nekk cousin parce que tamit yooyu idéologie yooyu foog ko nit day génne ah ok ok ok. te li ma lay wax ni da ngay koy vérifier ji balaa ngay wax Matar li muy wax dëgg la wala ay fen la loolu nga war a def d'abord. non source bi laa lay laaj ba pare boo pare ma wax wax ma source bi. léegi waxal woowal waa Pastef Richard Toll ñu wax la ndax dëgg la wala du rek. Pastef Richard Toll ñan ngay woo dañoo bëri di. mais woowal ñoom waa Pastef Dakar ne leen jox leen ma numéro coordinateur Pastef juróom ci ñoom kenn bu fenee peut-être yeneen ñi duñu fen wala daal au moins nga minimum ok parce que gars yi tamit dañu protéger waate waree mais jël minimum trois personnes ah. léegi li am importance mooy ah. ok mooy négligence bi par rapport ak leadership laay wax encore une fois non dafa négligé amul preuve waxuñu Morgan mënuma toog fii dèjà yaa ngi may laaj page cent trente huit dama yor livre bi fi non gars yi ñooy laajte du man de gars yi ñooy laajte ñoo ne page cent trente huit bëgg nañ gis parce que. léegi gars yi léegi gars yi je vous donne rendez vous ci page yu Morgan ci àll bi laa nekk. Hmm. gis ngeen may def live si camion yi je suis léegi jox naa rendez vous ci page yu Morgan. Hmm. naa leen ko tegal dégg ngeen naa leen ko indil képp ko bañ naa la ko indil ci page yu Morgan wallahi billahi c'est une promesse. waaw naa ko def après bu ñu paree naa ko def. au plus tard demain matin naa Morgan boo la ko yónnee nag na nga ko posté. non dama koy posté. dama koy posté da ngaa jàng trop instant non jànguma de wallaahi jànguma man c'est que man non attends bépp man sama gars yi nga mais fii moom man man convaincre ko ma waxtaan bi man ah, convaincre man je te comprends rek gis man gars yi xoolal moo tax gis gars yi dis bañ a comp ñoom kii merewu ma ci kenn parce que je mets à leur place waaw non man ko xamal lu tax parce que man pour man bëggeel cofeel gis nga gis nga Sénégal hmm. man loolu laay wax sama gars yi may leen waaye booy waaye mais gars yi est-ce que doo bàyyi noonu booy yaa ngi saaga da may leen non non du ay saaga saaga dérangé wul kenn saaga taxul kenn saaga taxul kenn non non dama lay wax non non damay wax ni ma comprendre ah. parce que mënoo xeexal peuple ba pare di am loolu moo tax sax man nekk fii di expliquer parce que instant bi mënoon naa ñëw adoon kee at oo taxaw gars yi wax ma wax lu ma neex laa nekk kenn du ci mën dara. waaw mais bépp mais mais accusation yi ngay joxe accusation yi tamit dafa garaaw te yow yow amul benn. xaaral xaaral xaaral ma wax la rek xaaral ah. Morgan may ma terminer si. waaw ok ñun suñu engagement war ñu contredire suñu bopp. Hmm. parce que man la laay jàppee contradiction mooy depuis ay quatre-vingt-huit may xeexal sama peuple benn instant may am problème ak sama peuple parce que moom donc il faut ma naxante quoi. man loolu laa jàpp te yow xam nga tàng chayen la yow xam nga loolu waaye <laughs> mais benn instant il faut tamit ma naxante ak gars yi ba ñu nangu nangu ma may nopp xam nga bëgguma bëgguma. waaw mais mais Pepsi nan la gars yi di maye nopp te yow boobu ba léegi li ngay wax yëpp kii nee na kee na la yow ba léegi bu ñuy wax yëpp. indiwoo eh, eh, eh, source li ñuy wax yëpp. kan a fi wax kii nee ke kee nee na. non non non non Atepa bi Atepa bi. Atepa bi nga nu. Atepa Atepa bi dama ni kii ke nee na benn laa la jox may exemple Thierno Alassane bi rek laa jox. waaw ok boobu Thierno Alassane la. li ci des li ci des déglu ma rek li ci des kii bi. mais affaire xaalis bi mu bi Atepa round Sénégal mais loolu. non loolu moom suñu naw ci Atepa Atepa moom suñu naw ci amul benn idée bu mu ñu te topp ñu ko waaw léegi waaw léegi léegi man. du question kii nee na contre mais man Morgan man moomu ma kenn am naa droit ne man Sonko lii ak lii moo taxoon ma topp ko ma ko doon jàppale moom Ousmane Sonko mu nekk leader bi. Hmm. mais bi ma gisee lii ak lii man sama léegi nangootuma ko parce que erreur yi mu commettre la waxuma ma dafa bon encore une fois na leer. waaw waxuma dafa violé kenn. Hmm. ma loolu non non li ma koy wax nii sax moom boppam lay njëkk a pour sax moom sax lay protéger au fond. ok parce que négligence am yi muy def nii ah gars yi dañ koy mais dañoo jaar ci kawam vite fait. il faut nga nga rigoureux ak sa bopp nga ànd ak yenn rigueur yi yenn yi mënoo négligent xoolal tey jii tey jii ah affaire bi kenn xamul. mais ban négligence ngay wax yow wax négligence mais ban négligence. wax xoolal gis nga affaire taal bi bi mu wax ni gars yi ne génn ñu taal dëkk bi ah. kenn xamul fan lay. non waxul waxul génn taal dëkk bi de. waaye moom moo tax gars yi génn. non non non gars yi ñoo génnal seen bopp pour dem soutenir ko. Eh. non mais waxul fenn dafay taal dëkk bi. yow xanaa déglu woo yow. waaw déglu naa maa ngi maa ngi maa ngi doon suivre direct bi mais man gisuma loolu. fan la waaw léegi ah, léegi eh, wax ma phrase bu mu wax ne génn leen taal dëkk bi. mais Mor Kane. Hmm. wax dafa am expression yow lan moo tax yow école yow. lan moo tax ñu dana def ay commentaire de texte commentaire suite est-ce que auteur bi day ñëw ne la waaye ok mais da ngay <laughs> mais mais mais ah yi bokkul moo tax kii di am zéro kee am un kee am dix kee am vingt. waaw kay <laughs> zéro nga am instant zéro nga am instant. Ah, zéro laa am. <laughs> amoon sax un kay léegi wuy ma moo gën. waaw ok léegi dañuy dugg léegi ci Thierno Alassane Sall lan moo tax. gars yi nee nañ eh, eh. da nga leen di imposer Thierno Alassane Sall lan moo tax yow sa choix jógee. ci Sonko rek wadd ci Thierno Alassane Sall wala jóge ci Sonko xaw ma yéeg ci Thierno Alassane Sall léegi léegi lan moo tax lan moo waral loolu changement boobu ak lan loolu lan la la Thierno Alassane Sall won ak kañ nga ko xam ak nan nga ko mën a jugé loolu laa lay laaj. man man bu ma doon kii Thierno Alassane Sall di ci politique damay fexe ba kenn du ma mere parce que buñ ma meree man maa ngi gaañ Thierno Alassane ok. Mm-hmm. loolu rek day wone ni man nekk lu ma fi kenn. comprendre nga li man hmm. dëgg rek laa fi nekkal man nag ni ma defoon ba gis Sonko. Hmm. kii ko Sénégalais bañ naa ko xolal laa ñoom kenn euh, ñoom Ousmane Abdoulaye Baro wala nga laaj euh, Serigne Ndiaye bi nekk New York. Hmm. pour te dire que rek job bi ñu doon job ko ngeen comprendre que bu ci Thierno Alassane wala Kële Ibrahima Fall la commencé. ok ok Ibrahima Fall kii na gis Sonko moom tamit am na ay. kii ay Sonko am ay faay nga dem nga dem ci yàlla ci Thierno Alassane Sall moom amul benn faay. te def cinq ans cinq ans ak Macky Sall. bu ma wax loolu ma waxul man waxuma Thierno Alassane Sall kese man dama tuddaale juge dem benn instant dama tuddaale capitaine Dieye mais benn instant discours am peut-être am na ma ci. kon yow ñëpp nga nar a bàyyi de parce que parce que tax na nga bàyyi kee. non non non non non Morgan li ma gëm mooy. du benn nit mooy daaneel Macky Sall loolu laa ok kenn kenn rek mooy daaneel Macky Sall. waaw mais tam bu fekkee yow yow da nga gëm loolu mais mais gars yi dañoo sentir ni instant yi da nga jeng ci Thierno Alassane Sall bu fekkoon yow li nga wax noonu da ko gëm li ma leen doon wax waa gars yi gars yi soyons honnête waay ok tey jii tey jii ah mm-hmm. tey jii dañu waxante dëgg ah mm-hmm. man dama leen ni soxlawuñu benn leader ay leader la soxla bàyyi leen di topp nit ok ma wax leen Thierno Alassane Sall de nit ku baax la première question mooy pourquoi Macky Sall waaw leen moo def Thierno Alassane nekk ko baax ok li ko def nit ku baax mooy. Hmm. mu duggee takk. ah, ah, ah. Euh, dàq dàq nañ ko ñaari yoon premièrement dañ ko dàq deuxième bi mu démissionné biñ koy njëkkal. non moom moom moo wax ne dafa démissionné mais ba léegi nguur gi naan dañ ko dàq. waaw mais yow nguur gi waaw yow nguur gi bu waxee dara ci Sonko nga ne nguur gi day fen bu nguur gi waxee. kii non man gun waxuma ne wax non dama ne ba léegi ne nguur gi fenul de dama ne ba léegi nguur gi ñoom nee nañ ko dàq. mais moom dafa andi ay dama liri livre ay SMS la andi andi ay preuve hmm. andi seen waxtaan ñoom la moo sénégal comme ni ñuy xeexee Sonko la moo tax ñoom wax kon li ñu bëri gëlaj mais Thierno Alassane li mu dénoncé Sonko dénoncé wul sax kenn waa waaw léegi Thierno Alassane ku baax la déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet Thierno Alassane Sall en 2012 euh. mi ngi fa lekk ma laaj la Thierno Alassane Sall en 2012 il était avec Macky Sall ou non waa léegi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. non tontu wii ou non rek. non déglu déglu déglu oh. déglu kooku mooy gën di bindee kooku dañ ko gide maa yunde ko anil awa du dëgg ah. Hmm. moom bi muy soog a dugg moom ah Médine <laughs> collaboré na ak kii wala bi muy soog a dugg. si bi muy soog a dugg laa la wax. waaw ah. collaboré na ak ñoom mais mais da ngay da ngay kii nga xool. comprendre ah yéegu leen lépp ah yaa ngi daanu de. dama bu xam naa Atepa. ah waaw waaw waaw yaa ngi daanu de dindil foofu dindil foofu gaaw parce que Atepa bi laa lay indil de. dëgg loolu dëgg may façon mbay ma dégg. ok ñëwal. dafa am lu ñu teg ñoom ñaar Macky Sall moment boobu Sénégal yëpp ko jàppale. Hmm. feeñagul jikkoom génnagul. ah jikkoom génnagul moom boobu la ànd ak waaj Atepa nag moom daa génn leen ba pare loolu mooy différence bi. kon Macky Sall Macky Sall Macky Sall fonds taïwanais yi huit milliards nga ne jikkoom génnagul détourné huit milliards fonds taïwanais yi nga ne jikkoom génnagul. du yéen a ko voté. ah non loolu kay kii jikkoom leer na bu yàgg Macky Sall amul ko nga xamul woon. dafa dàq huit milliards bi ñu koy soog a élire est ce que wax ngeen waxi huit milliards. yi loolu xam nañ ko avant. non non non non avant les élections même. non non non non yéen vous étiez tellement ak yow ak yow ah man la laa la wax man dama leen salaamaaleykum man la 2012. nii nii nii non tu étais omnibulé par le départ de Abdoulaye Wade Mrex. tu étais euh, euh, dégg maa rek. Euh, dama ni mais mais dama ni Macky Sall du waaja. waaw mais <laughs> Macky Sall du waaja am nañu man mii. mais man Ibrahima Fall laa woon. barke Rasulullah Ibrahima Fall laa mais bu ñu may damm j'étais avec Ibrahima Fall bu ñu may damm j'étais avec Ibrahima Fall. Morgan Morgan xaaral Morgan. non bokkoon benn. léegi léegi dañu résumé waat. Eh, jamono ñoo bokkoon benn clan man ak yow yaa bu ñuy xeex. suñu live organisation. ok bokkoon benn vision. ñoo bokkoon fu ñu nekkoon Ibrahima Fall nga woon may Ibrahima Fall. waaw wuy ma waaw léegi wuy ma. léegi nañu rek def benn recap. ok man bon yaa ngi may laaj par nga dem ci euh, prophète bi nga gis ne moom bu mu ñëwee Médine dafa collaborer ak ñam fa fekk mais yow nanguloo. Ousmane non non ah. la nee collaboration bi. du hmm. question ñooñu dañ ko jox ay sièges. du ah, question dara dafa jàpp ne rek ñii di ñoom. Hmm. ñii au moins am nañu livre. ah mais collaboration collaboration la rek. non ma daal collaboration collaboration que ça soit matériel ah, financier ou bien moral collaboration la. Morgan wóor na yàlla damay. waaw ñëw ñëw ñëw waaw nee ñu dem ñu dem ñu dem. ndawul gerte bul gerte. Morgan Morgan xoolal. <laughs> waaw ñëwal ñële ñële depuis Ibrahima ak Ismaël lañ gëj a am yonent. donc ñoom boo xoolee sunu gaf sax sunu gaf ñoom boo tax ñu yónnee ci ci waa banu Xurayda ak banu Xaynuka ak ñoo juif yooyu nekkoon Médine pour ñu wax leen nan la ñuy daanelee yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo xoolee sunu gaf loolu moo ko indi parce que dem nañu ba jaaxle mm. mais parce que ñëpp amoon nañu ay livre xam nañu Moussa quoi kii hmm. Moussa lañ topp donc moom bi mu ñëwee gisoo ñoom seen sikkim yi xam nga ñoom ak euh, sunna bi ni ñun roobeeg ñun am na lu bëri mais yàlla dafa seetaan hmm. woon rasulullah ne ko ñii gayen kaay ma nettali fi ñu jaar ak Moussa waaw ah, bul collaborer ak yow fi ñu jaar ak kii hmm. waaw léegi même bi même marché bi marché bi lañ njëkk a déplacé ne ñoom juif yi dañu am seen marché ñu ñu am suñu marché comprendre nga ay affaire ku baax la. loolu lañ bëgg nga expliquer loolu lan la baaxee ba ba gën a baax. ba gën a baax Ousmane ba mu jaral lan nga ne ko ñu Ousmane Sonko dem ci moom. ok damaa ni damaa ni damaa mm. ni erreur yi mu erreur yi yi Ousmane Sonko def moom defu ko ok. ah bon waaw loolu laa ça deuxième maam dama ne woon ñoom ñëpp nañu ànd. waaw na expliqué non non non foofu nañ leen taxaw foofu. comment erreur yu Ousmane Sonko def Thierno Alassane Sall def ko te Thierno Alassane Sall yore sañuy milliards de de de Thierno Alassane Sall 2012 il était dans le pouvoir avec le pouvoir 2013 avec le pouvoir 2014 avec le pouvoir 2015 avec le pouvoir 2016 avec le pouvoir 2017 2018 la la fay doog a jóge kooku yor ay milliards yooyu nekk ay ministre nga ne moom deful dara. wuy ma wuy ma déglul déglul déglul. maa ngi lay déglu yow koo xam ni. ah mësul hmm. gouvernement ko jox kër mu kër kër gi mu yoroon la bi nga xam ne alalam avant muy nekk ci pouvoir kër gi mu dëkkoon fa la dëkk ba tey. après. ça c' est un. Hmm. deuxièmement hmm. sa salaire vingt millions nga ne dafa bëri. Hmm. nga wàññi sa salaire ba cinq millions. mais mais loolu. attends attends attends Thierno Alassane Sall moo wax loolu. kan moo wax loolu. ñëpp ko wax yow demal ci télé rajo yi waaye ñooñu ñëpp ko wax Abdoul Mbaye ñoom ñëpp ko wax. non dafa la ñoom ñëpp a ko wax. Ah. loolu kay dafa la moo tax gis nga gis nga. Euh, euh. waa léegi waa waa léegi léegi très bien. non non foofu laay continuer Matar. waa léegi waa waa foofu nangul nañ ko nangul naa la ko léegi kaay kaay kaay kii directeur impôt et domaine waa wuy ma. waa léegi directeur impôt et domaine boo xam ne moom amul kër. amul kër maanaam këram ci banque da ko da ko jël ci banque di ko fay léegi loolu loolu nag kooku tamit nag ko koo xam ne directeur impôt et domaine inspecteur général bu amul terrain. léegi xam nga cité kër góor gi xam nga cité kër góor gi lan lay représenté. Ah. moom mooy symbole spoliation foncière xoolal. njuuj njaaj non moom génne na ay kayit non moom moom deful lool moom génne na ay kayit wane ni prêt bancaire la. xam nga yow instant bu ma la toppee gis nga bu ma la toppee ah. ah. xam la la ñuy andi xam la lay andi ah. Hmm. ay Thierno Alassane contre Sonko. ah mais il faut parce que dañoo gis ni foofu la jóge dem fële. lii mataar la man man. Ah. man maa ni man maa ni xool leen diw ak diw tamit. man hmm. wax ba pare ma ni Ousmane ko erreur yi mu def ni yëpp ah xoolal instant bi Pastef le projet Pastef na gars yi xool projet bi Ousmane ko mu arrière mu bàyyi keneen porter projet bi ci kanam moom incha allah sax bu ko defee dina ko gën a crédible devant seen dina mën a ñëwaat. mais hmm. pour le moment erreur bi dafa war a fay ko pour ça bu fayee il va servir d' exemple à ñii di ñëw après par rapport à leurs erreurs. dinañ xam ni bu ma defee erreur kat dama war a démissionner. waaw mais ku nekk ci gouvernement Macky bu ñuy reyante ba 2017 bu nit yi jaay seen bakkan Macky Sall mais il était là-bas mais kooku mais donc. il est non tous ceux qui sont avec tous ceux qui sont le chef sont contre le chef mais mënoo nekk 2012 ba 2017 ak lu ñu daj fii ci loxo Macky Sall. ba pare moom mu nekk foofu noonu quand même. Ah, naan ay ah, vingt ah, millions yooyu amul. mais ba mais ba kañ nga commencé rap moom moom de kañ nga commencé rap. <laughs> non. merci. waa léegi. 1900 war dëgg la war a xam nga. 1900 war nga dërëm 1900 war nga dërëm 1900 war nga dërëm ba léegi yaa ngi raf raay. waaw yow léegi yow mais pourtant ñoom ay ñoom caat ñoom kilifa gars yi pourtant ñoo ngi ci rab bi ba léegi de yaa yaa yaa ak ñoom yaa ngi ak ñoom ci biir rab mais lu tax génnoo rab bi nga gett rab bi. <laughs> yaa ngi jox du yaa ngi jox ci biir pour yoole gars yi li ñuy def ci biir rab. mais yaa ngi jox ak ñoom parce que yaa ngi may lu mu may bopp doole. <laughs> dëgg la woon dëgg Thierno Alassane lenn ngay xool njëkk nañ ko dàq. Mm. pour lan mais Sénégalais yi da doon défendre ci affaire autoroute à péage bi. autoroute à péage ban nee naa benn bi. mais Eiffage ah, projet projet projet Eiffage bi il était là-bas projet Eiffage bi. c'est saa waay demal nga vérifier ji ngir yàlla waaye Morgan. wala léegi xam nañuy def ah, par rapport ak Thierno Alassane nañ taf Thierno Alassane quoi léegi yow liiral livre bi ba pare après nga enquête yi. non liir naa livre ba yëpp Thierno Alassane Sall bu ñu bind livre bi sax waxoon na ma ko. ñemee naa waat ni liiroo. waaye liiroo non boo ko waatee boo ko waatee lakk de. ñeme naa ko waat laalo léegi xaaral mais Bébé dama laaj léegi waaw xaaral ma laaj la de 2012 à 2017 yaa ngi xaaral ñu dem mais nañ dem ndànk rek waaw 2012 à 2017 la doon def ci Macky te ñun 2017 yaa ngi xeex Macky def nga ay live di ko xeex eh, Thierno Alassane Sall était ku nekk ci biir moom mooy approuvé nga la fa ne donc lan moo tax de deux mille 2012 à 2017 mi nga xam ne sénégalais yi sonn nañ bay bëgg a dee Thierno Alassane Sall était dedans dans ce système là. yow lan moo tax nga voteel Ibrahima Fall. Ibrahima Fall moom moom doyoon gis naa ni bon nit boo xam ne la malgré malgré que. Euh, nekkoon na ci système bi ak Abdou Abdou Diouf et cetera et cetera mais jàppoon naa ne moo tane moo tane ña fa moo tane. ah ok ok ok. moo tane ña fa ne moo tane léegi yow Mamadou Dia hmm. Mamadou Dia. ku baax la wala ah. ku bon. Mamadou Dia ku baax la. waaw ah, ku baax la ku baax la ci lu ñu jàpp waaw benn instant benn instant collaboré na ak Senghor. waaw mais. Ah, euh, c'était son stratégie peut-être. c'était son stratégie Abdoulaye Wade sax euh, collaboré na fi ak Abdou Diouf. par stratégie mu ne gars seen projet bi li ko Senghor mais comment mais. waaye loolu ça ne veut rien dire. non non non non ça veut dire quelque chose. de 2012 à 2017 pro euh, loolu ça veut dire quelque chose. mooy que man waxuma la Thierno Alassane dañoo soxla leader ci peuple bi xoolal gis nga benn instant bu ñu jëlee pen nit dafa baax sax dafa baax sax ñaari ñaari commandant wala ñetti capitaine ñetti commandant nekk ci bateau bi. mu am contre pouvoir par quoi mooy Sonko taxaw. mais est ce que Sonko dafa xeex loolu. est ce que Sonko daf ne kenn du fi nekkaat opposant. waxee wuñu foofu encore waa Morgan bàyyi bu waxee a nga ne mbaras gars yi déglu bu baax xoolal dama la ni bu nekkee ñoom ay par exemple dina indi benn code parce que dañu soxla ay code pouvoir bu war ñu nangu pouvoir bi concentré wu ci benn nit quoi léegi il faut moo tax man li ma xalaat déjà avant loolu sax. avant pour Seydi Alassane wala Sonko wala dara ñun peuple bi ñoo wara a porter le projet la ñoo ko war a initier ñoo ko war porté porter comme ça Thierno Alassane ak Sonko ak ñoom ñëpp ku ci nekk président di nga xam ne doole moo fi jëlee Macky Sall di nga ne nga yem di nga xam ni fu ñu jaar ak Macky Sall foofu mais bu ñu bàyyee ñoom politiciens yi ñu gérer affaire bi après ñoom moo tax moo tax après ñoom ñuy def leen neex xool xool Idriss Seck nu muy waxee ñun léegi xool ni muy waxee ñun. fi la nekkoon di saraxul ay façon naa yéen dañu jaay reewa nekk quoi parce que ñun peuple bi ñun ñoo fi mais nañu wonte ni ñun ñooy doole bi d' abord nañu taf ay affaire Thierno Alassane affaire Sonko nañu taf loolu ñun ñoo war taxaw dix millions waxuma ñu taal ay bis mais xoolal énergie humaine nit bu taxawee nekk dix millions taxaw comme ay Moubarak ñoom kii gisoon nu ñu tawee ay ñoom benn Ali ñoom Moubarak printemps arabe ils étaient obligés de daw te gars yi taaluñu dara. tajuñu bus taaluñu dara da ngay siégé affaire bi boo ko siégé ñu bañ benn politicien bañ ko porté ñu xam ne ñun peuple bi ñoo ko porté léegi nag xoolal dañu war a changer Sénégal dafa bëri constitution bi ñu ñu indiwaat assises nationales yi les conclusions des assises nationales ñu indiwaat ko ñu kii ñu xoolaat constitution bi ñu xool si programme scolaire bi fekk peuple bi moo koy teg ñu tànn suñu njiit njiit boobu dina xam ne a ah, doole bi ma fi teg de mais bu nekkee ni ñun Sonko dañ koy def comme ñu def ko comme un xoolal ñu leen di kii boo leen laalee ñu saaga la ndey ñun ñuy xeex suñu biir di saagante suñu biir ñun en tant que peuple ah, di bañante suñu biir te alors que ñun ñooy souffrir ñoom ku ci teg président yow lu la neex sa famille xoolal mettre nañ ko à l'abri pour des pour des années. ñun ñoo war a comprendre loolu. li mais chaque fois dañ fiy nekk di topp ay. mais sujet bu nga indi ñu ñu taxaw ci daan réflexion da nga joxe ay exemple ne un gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple maanaam peuple bi bu ñu jógee ñu jël porter le combat. di ko régler seen bopp dëkk yi ko def yëpp dañoo échoué léegi ñu dem Mali kii ko def peuple bi génneel seen bopp amul benn opposant dañoo cóolle ba léegi ki fa ne ma nga fa toog rien n'a changé Burkina Faso dañoo génneel seen bopp xeexal seen bopp ba jëlee fa Blaise Compaoré ba léegi teguñu kam kii kañ kañ fa teg mi ngi nii nanguwaat na affaire yi dara rien n'a changé en Égypte rien n'a changé ñoom ñoo ko def en au Tunisie rien n'a changé et cetera dëkk yi ngay wax yëpp yi nga xam peuple ba génnal seen bopp te jiite wuñu amul kenn ku leen jiite amuñu benn opposant radical bu taxaw jiite leen ñoom ñëpp échoué munoo ma jox benn exemple en Afrique peuple bu génnal seen bopp xeexal seen bopp sànni fële opposant yi ne dañuy xeexal seen bopp bu réussir amul waa léegi may ma wax la may ma wax la ok mm, mm. Euh, di nga gis benn cas benn benn euh, affaire bu am mm. nga ne ok lii exemple bu baax li bi pare li pare ok déglu lii lu baax la mais fii la gars yi échoué fii la ñu defee erreur malheureusement dama la jox euh, euh, pour yow pour sa par rapport sa compréhension xam li ma la wax quand arab dis printemps arabe bi man si moment boobu ci benn concept la nekkoon benn contexte mooy lan mooy nit yi bu ñu génnee nekk nombre hmm. que pouvoir bi dafay daw loolu moo ci am solo pour nga comprendre ko par rapport fi ma doon waxee mais printemps arabe bi c'était téléguidé. Hmm. ñun loolu la ciy jàng suñu bos kenn bañ ko téléguidé beneen bi mooy. Hmm. xoolal tey xoolal tey révolution française ah. mais bu Mali bi kenn téléguidé wu ko mais il a échoué. ils ont échoué wax la rek mais hmm. Mali affaire dafa am yeneen réalité yu nekk ci suuf. mooy mais Mali yow du du pays. que au début là ce qui se cache dans la lumière. ah imam boobu out of nowhere mais amul gars yi follow affaire bi. mais kon Sénégal bu kiiwee itam noonu lay mel ah, wala pire sax. léegi waaw mais non du mel noonu Morgan moo ngi fii te ñun am nañu ay assise nationale bind nañ ba pare. ah mais bu Morgan bu Morgan ñëwoon ñu ne Morgan kat warul génn ci mbedd bi jël jënd caaf. Morgan kat warul ànd ak benn gel Morgan kat ah, dafa ah, dafa téléphoné ah, benn jigéen fële. waaw Morgan yow looy looy comprendre man man lay wax Morgan en tant que pauvre ay Morgan yu bëri laay wax parce que yow yaay Moussa Ndiaye yaay Morgan yaay Ablaye Ablaye. <laughs> waaw mais bu génnee xam nga sénégalais sénégalais musul nit musul ñëw parfait ci ñoom. parfait ci ñoom gis nga man man dina man comprendre naa Sonko par rapport ak man mais c'est pas c'est pas de leur faute Morgan sénégalais c'est pas de leur faute. Hmm. population bi tubaab bi encore une fois loolu laa ko may la dafa envoyé ay mission hmm. pour xam ñun gars yi demaguñu fenn ñoo ngi fii man moo tax yenn saa yi damay gis sam benn mbokk murit taxaw ne mais euh, waaye tubaab yi bu do mais non combat sëñ Tuubaa bi ah moo ngi fi ba léegi gisa loolu sëñ Tuubaa yooyu ah ñoo ngi fi ba tey il faut ñun bu nekkee gëm na Cheikh Ahmadou Bamba ci combat mais il faut nga continuer combat xeex tubaab yi nekk fii ci ci réew mi waaw waaw léegi élection élection bu amoon tey élection bu amoon tey élection bu amoon tey mu am Macky Sall am Ousmane Sonko euh, am ba ñeneen comme mille en 2017 bi passé kan ngay votel ko nga war a voté koy votel man déjà déjà avant ñuy dugg foofu avant ñuy dugg ah. Hmm. Euh, euh, Euh, dama lay wax benn affaire waaye <laughs> boo toogee bay Amérique man bi ma nee bay ju euh, Russie Russie ah mais dañoo dañoo trafiqué dañoo trafiqué gars élection yi ba teg Donald Trump quoi après au fait mais man mënu ma ko mësuma ko mën a gëm quoi. Hmm. ndax technologie fi ma toll ndekete waxuma naa ne Sénégal nag élection moom gars yi dañuy raaw bu sonal sa bopp. kon élection moom moom moom ah, waaw léegi man man gëmuma sax élection war nañ dem élection Macky Sall man loolu gëmuma ko xam la laa gëma hmm. gars yi nañu kii mais fekk du jaar ci benn ci benn euh, politicien waaw ça c'est donc léegi nag bu ñu demoon nag ba li nga wax fekk moo fi sës moo ah waxaa daal gari kanak kanak kan Macky Sall moom comme comme en 2017 y avait eu Macky Sall y avait eu Sonko ya avait peut-être maître El Hadj Diouf ñëw wala ñeneen comme ñoom seen éléments yi ñu indi rek quoi mais ya a Sonko quand même y' a pas euh, je sais pas parce que ba léegi waxoon ni sa leader la taas waxoon ni sa leader la confirmé woo ko donc mënu ma ko jàpp donc mais y' a pas taas quand mu am Sonko am Abdoulaye Macky Sall am Karim Wade am euh, Maître El Hadji Diouf am euh, Khalifa Sall nga war a voté kan ngay voté. li tane li tane ngay wax de li ngay wax. waaw mais kan ngay voté la la laaj kay. fi nii nii nii nii nii nii. waaw nii nii nii nii ah, may xool li tane laa wax de li tane. Ah. waaw li tane mais kii kii laay kii laay voté euh, euh, Karim Wade kon laay voté Karim Wade. <laughs> mais kon yow am na loolu non am na loolu Sonko def. am na loolu Sonko def quoi non non dafa ma non danga doon xaar ma Sonko man xamul tax ma wax la Karim Wade. Ah. danga may laaj kay lu tax. waaw doon ñëw foofu lu tax. man man contredire sama bopp dama ni Sonko na arrière tuuti après mu ñëwaat. ba jaral na la nga dem ci Karim Wade bi nga xam ne loo ko yàqul amul. déglu ma déglu ma yéen yéen yéen ci seen bopp yéen ci seen bopp kaale ma waxal la gars yi nañu waxal dëgg yéen. waaw léegi lu tax Karim Wade. yéen xam nga xam nga laaj kaay ma wax la yéenay ñan ma wax leen yéenay ñan yéen ñiy déglu ñi nga xam ne ah yenn saa yi da ngeen di fàtte ni Sénégal le mal est tellement profond. Hmm. nga indil ñu Karim Wade. du ci ay vingt ans lañ koy lañ koy lijjanti quoi Eh. xam nga xaar rek may ma de may ma ma ñëw normal et tel te ñun dañoo yàqamti donc Ousmane Sonko bu nekkee président mënul régler problème bi en parce que yéen li ngeen bëgg quoi mais parce que ñun ñoo njëkk am problème en tant que peuple li ñuy reproché Macky Sall ah, ñun dañ koy def ñun chaque jour ñun moo ngi ci suñu suñu biir koñ yi quoi suñu biir kër yi. ñun li ñuy reproché Macky Sall ñun dañ koy def comme par li ma la léegi nag du mën a régler problème bi en vingt te da ngeen a yàqan xam nga lan ngeen di def après. mais kan moo koy régler nag Karim ah. ngeen koy commencé taggal parce que commencé ngeen lu leen wax ngeen dégg ngeen gëm ko rajo yi lu leen wax ngeen gëm ko après ngeen commencé ko ne waaye anyway de façon violeur la yéen a commencé xoolal ngeen tekki lépp de li ngeen doon défendre lépp ngeen teg di ko wooyee violeur <laughs> waaw loolu ngeen di def xam na leen. comprendre moo tax nag protéger ko déggoo may la encore une fois projet. projet parce que waaw mais mais non mais bu ñu demee ko ba xaar xaar xaar mais non fii bu ñu demee ba mais tontu ma fii nag mais lan moo tax nga choisir. Karim Wade loolu loolu ba may lay nii. waaw eh? léegi maa ngi ñëw ci loolu dama ni xam nga ñoom Ousmane Sonko benn affaire la ñu réussir tamit mooy projet bi quoi projet bi te moo ngi taxaw ba léegi donc ils ont réussi un projet. quel projet boo xam ne au moins moom mooy rupture bi quoi. moom Ousmane Sonko ba ay waxam mais mayaat na ñu bëri fit quoi. Mm-hmm. mayaat na ñu bëri espoir loolu c' est à saluer te loolu moom les Sénégalais du loolu always luy être reconnaissant. xam nga comprendre même boo d' accordul moom nit loo d' accordul moom sax ah, mais da xam ni ah def na lii def na lee am na benn parce que benn instant dañoo découragé woon. jeunesse e dañoo découragé mais au moins moom bi mu ñëwee mais fexe na gars yi jàppaat ne xoolal ñemewaat jëngu tuuti sax keroog man je suis pas d' accord ni gars yi génnee parce que moom def na a encore prêté le flanc mais au moins am na ci lu ma nangu mooy lan lu ma déglu mooy gars yi génn bi quoi le concept de génn mooy commencé ñu ñëwaat quoi mooy taxaw ci mbedd bi mooy commencé ñu ñëwaat mentalité mu ñëw quoi. comprendre li ma la mm-hmm. léegi nag lan lan nga waxoon léegi lan nga waxoon. waaw yow non ta ta yow projet yow wax nga am na ko. mais mais Karim moom bi nga choisir à la place boobu. non non non non Pastef la Pastef ñoo ko am Pastef. mais Pastef mais Pastef c'est kii. ñoom Birame Souleye la ak ñoom it euh, <laughs> keneen kii kii Fat Faye la ak. mais projet bi. comprendre nga mooy wax waa Pastef de manière générale parce que du affaire nit ok. non kon non yow Karim Wade Karim mooy. Karim Wade yéen laay wax ak kon yéen sénégalais. waaw ngeen tolloo ngeen ko am kaañ benn instant da ko am kaañ. te mu parce que gis ngeen ko quoi da ngay ñëw. comme kaañ ay ko ah, gars yi. <laughs> mais yéen mais yéen da ngeen négligé da ngeen am kaañ moom du jeunesse jeunesse Pastef moom du ñoom ñoom moom du leen gagné. <laughs> ñoo koy xanaa nga wax yenn paa yeeg neen. booy ñafe de. booy en vingt quatre heures ñu teg ay cent millions. no no non nañ ci accès maanaam en vingt quatre heures ils ont mis plus de cent millions ci ci table bi ñooñu ñooñu ñooñu moom saaku ceeb <laughs> yóbbul leen ñoom ñëpp ay liggéey. waaye wuy ma wuy ma waaye waaye loolu loolu loolu moom amul amul loolu ah, man euh, léegi waaye léegi ma laaj la waaye léegi laaj la man yow gëm gën ni yow Karim Wade man mun na maa jënd yow yow gëm nga loolu yow. yow man ak yow rek ok léegi may ma expliquer. waaw ñëwal waaw Mm. xam nga lu nekk étape la quoi étape par étape la. Mm. xam nga benn instant newoon naa euh, gars yi. mais Karim Wade nag dafa sàcc sañu milliard wala sàcc ko. waa déglu ma waa déglu ma rek non danga ma tegal condition danga ma ni. Mm. bu kii ak kii ak kii fi sës. waaw nga choisir Karim Wade bi di tourner la man la par rapport ak moment bii nii laa wax. waaw waaw moment li xew moo tax ma ni Karim Wade. ah waa tu vois je veux dire waaw bu nekkee Macky Sall mooy pire moo pire Karim Wade. Hmm. pire ñëpp même loo bañ bañ ñeneen yi nga xam ne mais Macky Sall doole xaalis doole poche moo ko fiy jëlee. waaw mais mais non mais mais doole poche am boobu fu ko jëlee baayam moo ko liggéey wala yaayam. non du question yaayam ak baayam bu nekkee moom doole poche boobu comme que dafa rawoon suñu moon yi mën na ko andiwaat ah pour investiraat ko pour ñu débarrasser wu d'un mal mais c'est bien. c'est toujours bien. ah d'un mal ah, yow yaa fi waxoon léegi. Oh, oh, xam na nit. non yaa fi waxoon on corrige pas un mal par le mal. on corrige pas le mal par le mal. léegi nga nangu. non yaa ma yaa ma woo ci benn non lii c'est selon un contexte bien mais mais yaa ma woo ci concept. non waxuma foofu dama la posé question rek. <laughs> yaa gisee noonu non non non non da nga ni da teg ay conditions da ni. bu fekkoon lii ak lii may la bu fekkoon loolu donc lii peut-être mooy man li tax ne laa lay wax de waxuma la li ma. mais mais mais mais Matar mais loolu da ngaa idéologie parce que ñun dañu nekk di xeex loolu. non no non non waa waa yow yow ku ku mar naan ku naan sa euh, par exemple ku ku kii par exemple ku euh, ku. ko xel bu muy gasee pour naan nga jox xel bu muy gasee pour naan. mais doo ko ne doo mar naan nga nga jox ko pooti déedéet. non rappeurs jox ko xel non rappeurs yi métti a <laughs> mais lañ nekk Matar monde des idées. waaw yow bu ñuy xeex. waaw monde des idées dañuy xeexee xel. mais da ngay jël ku am xel nga utiliser xelam mais doo ne ngay jël keneen ku am xaalis mu xeex ak borom xaalis. non non mais loolu c' est par rapport à l' état psychologique du peuple sénégalais. mais loolu loolu moo tax nga ubbi say moo tax nga ubbi portable di live Matar. xam nga éveil de conscience boobu noonu nga bëgg a dindi noonu. non non defal naag defal naag sànq nee naa la hmm. Sénégal le mal est tellement profond que même Sonko bu ñëwoon nii nii nii mu ak ku mu mënta nekk. Hmm. ak même bu xaw ma tooy oba am ku mu mënta nekk mais mënoo régler problème seen parce que dañ ñoo yàgg le mal est trop profond comprendre li ma la mais est-ce que dafa war a tax ñu croiser les bras aussi non non mais yow il faut mu am benn mataar boo xam ne par exemple dina leen wax loolu leen bëggul dégg loolu yëpp ci xeex bi la hmm. ci xeex bi la bokk benn il faut mu am benn morgan boo xam ni dañoo naan non gars yi mbataar ay gars yi lañu mais nag gars yi ñu taxaw ci ci ci digg penc bi ñu ñu débat sama ak yow hmm. gars yi bu dégguñu hmm. li ma la xam nga il faut loolu yëpp mooy l'ensemble bu ñu ko boolee at the end of the day ñu xam ni génération future yi rek la ñu mën a dimbali. la ñuy parce que sa garab gi ñu jéem a saxal ah. mais gars yi ñu fekke sax trottoir yi waxuma la ak ñuy fekkee ñuy fekkee euh, euh, fi muy produire ay fruits. parce que plus de quatre cent ans d' esclavage ñu pare de loolu xoolal depuis boobu colonisation néocolonialisme gars yi dañoo implanté wu dangereusement suñu biir suñu biir waxuma la même suñu suufu lali mooy les occidentaux la. suñu ADN quoi suñu ADN. waaw loolu merci heureusement bi nga wax AD suñu biir ADN la booy xoolal ñun comment on réfléchit ci société bi xoolal xoolal rek ñun ci lépp en ah, lépp da ngay intellectuel mais kenn daf la naan j'ai tous les diplômes du monde ngay débattre ak moom mais tu te rends compte que le gars euh, mais mais son cerveau voilà euh, yàggul <laughs> yàggul process information xam nga. <laughs> non yow yow Morgan xam nga baax li may wax. waaw waaw non ah. diplôme deful ah. diplôme deful nit borom xam-xam. loolu xam nañ waaw non mais mais da ngay ñëw benn gars ñu ne waay waay waa ji non gars bi booy docteur la en lii booy gars yi. mun na am xam-xam tam mun na am xam-xam mais mu malhonnête malhonnête ak xam-xam bokkuñu dara quoi nit mun na am xam-xam malhonnête. ma jox la beneen exemple. Mm. xoolal tey xoolal tey ah tey tey ñi jàng ñi jàng ay daara ay arab ay ay l'école arabe quoi. Mm. xam nga ñu jógee ci école arabe yi mais gars yi jàppee bu ñu leen intellectuel. xam li ma la wax mm. xoolal tey jii dañoo am na benn jour ñu ne mam Amadou Dabakh mu ngi doon waxi Platon waxi Platon ay ñoom sëñ saali woog yooyu ñoom dañ xoolal liir nañ mais en arabe lañ ko liir liir nañu livre yu bëri mais en arabe la ñu liir livre yi donc ñoom xam nañ li xew ci àdduna bi xamoon nañ ko hmm. mais système bi day ñëw fexe ba jël arabisant bi ñu écarté ko donc kenn tu ko woo ci dara te ñi ma wax ni c'est parce que ay sëtu sëñ Touba lañu ak sëtu Maam Maodo moo tax sax ñu may leen nopp mais am na ñoo xam ne ay jaxate lañu sant ay kii mais arabe la ñu jàng mais ay intellectuel lañu hmm. donc bu ñu leen boolee ci dara lan moo andi loolu mais système bi moo ko créé mooy lan la néocolonialisme français la ñoom ñoo ñoo ñoo andi loolu ci suñu suñu psychologie suñu suñu subconscient yi ñoo installé ce programme la dans nos subconscients ñu màgg ak moom. Hmm. comprendre nga li ma la. léegi da ngay gis sa booy oustaz booy xoolal yaa ngi fàttali oustaz booy oustaz warul dégg français quoi yi nekk lycée. Hmm. oustaz oustaz du dégg français gars wala oustaz dañ koy reetaan quoi parce que déggul français laa bëggoon. mais mus nga mus nga mus nga depuis boobu noonu mus nga waxtaan ak Ousmane Sonko. Euh, bi may mujjee waxtaan ak moom xam nga xam nga li ma waxoon rek mooy man bi mu ñëwee États-Unis man euh, bon veille bi la ñu wax quoi parce que lu taxoon ñu waxtaan mooy man dama doon euh, dama bon xam naa comme li ma la xam naa Sénégal léegi ñu amoon benn benn circuit bu ma amoon boo xam ni parce que temps président Ghana bi. ak président wu euh, euh, euh, Rwanda hmm. Hmm. amoon naa connexion bi quoi hmm. benn waay William fii Atlanta léegi moom moom moo éliroon sax ay ñoom George Weah bi que ñoo ngi naan franc-maçon la waree George Weah right léegi mais après moom dafa rompre ak George Weah léegi moom il avait la connexion mais bi bi ma bi ñu connecté ma waxtaan ak moom ma ne ko ñun am benn waay ko boo xam ni instant bi espoir la pour wax dëgg yàlla jeunesse bi ak pour Sénégal mais problème bi mooy man je sais bu ñu amul xaalis bu ñu dem quoi te xaalis bi dama bëgg mu jógee ci ay président yoo xam ni ñoom au moins crédible nañu ànd parce que gis nañu àddu ni mu doon créé les Macron moom li muy représenté ak li muy symbolisé au moins dina nekk dina amaat dañ dinañ faire d'une pierre deux hmm. parce que bu ñu newee après mu ne ma xaaral euh, ndax mu joxaat ma rendez-vous mu ne mais dafa ñëwaat ci man ne sa waa sa waa ji parce que Ousmane Sonko la dafa dem ci internet bi quoi mu ne aussi am na ay Gambiens yu ma xam mais nee nañ ko Ousmane Sonko am na doole instant bi donc moom na nag moom ni muy liggéeyee mooy businessman la quelque part parce que bu la régler les financements xam nga mais après yow moom dina ci am benn pourcentage dix pour cent lay am mais doomam doomam NFL la nekk tamit quoi doomam bu dee gain bi xam waa NFL fii xam nga nu mu def football américain ñooy ay multimilliardaires lañ xam nga gars yi sonnul quoi comprendre mm. donc. Euh, donc mais mais loolu waru mais loolu waru tax nga jàppale Ousmane Sonko amul dërëm ah. mais is big am na doole ñëpp a ngi koy topp donc lan lañ ko toppee ah, idéologie loolu ta loolu ta élection yi la mais ba léegi sax am na doole boobu mi ngi fi tey la gën a waalo gën a joxul kenn lekk joxul kenn naan maanaam mi ngi commencé changer système nit yi pour ñu toppoon la da nga leen di jox lekk wala naan Ousmane Sonko yorul lekk yorul lu naan joxu ko kenn te nit yaa ngi ko topp donc lañ lañ ko topp ay idée est ce que loolu warut a tax nga mun ko yottam nga jàpp ci parce que yo tu es très très nga jàpp ci ndax xam nga ni il a convaincu les les sénégalais il les a convaincus à travers euh, des idées est ce que loolu warut a tax vraiment nga nga bàyyi lépp lu nga jàppoon jàpp ci parce que soxla nañ la ci combat bi ah Matar soxla nañ la ci combat bi non non man maa ngi ci xoolal mais mais yow ma ñoom ñëpp ils sont Sonko. c'est vrai déglu ma rek déglu ma xaaral xaaral ma bi ñoom ñoo fa nekk. xoolal Ousmane Abdoulaye Baro moo ngi ci xoolal mais cabinet Sonko la bokk. waaw. dama ne woon damay wax yenn saa yi moom xam nga da xoolal Tamsir Bathily. Hmm. xoolal rôle bi muy joué 313 mais massification xool rôle bi muy joué joué joué joué ci kii ci euh, ci ci Sonko moom par rapport Sonko quoi. Hmm. comprendre li ma la. Hmm. mais bon surtout Tamsir il me comprend quoi. xam li ma la hmm. peut-être yenn saa yi sax baro moom yenn saa yi peut-être comprendre wala wareeva bon mais day accepté que parce que benn instant dama ni dama ni gars yi par rapport ak 313 bi ah defe naa il faut ma bàyyi live yi quoi parce que bugguma man samay idée personnelle man man personnel parce que xam naa ne samay kii dafa particulier quoi peut-être neneen laay gisee du bokk ak gars yi mais damay ragal mu gaañ 313 mu gaañ gars yi mu gaañ gars yeneen gars yi fa nekk xam nga et tout léegi mais baro si boppam moo bañ quoi ne na mais Matar da ngay attaqué da ngay attaqué sama sama candidat et tout waaye daf may métti du ma si mën dara mais waroo bàyyi ko moom moo insisté ci loolu. donc damay gis objectivité par rapport ak affaire boobu raay ci biir loolu la am ñoom may sa mbay bi créé collectif des Sénégalais de la diaspora. Mm. xam nga peut-être moom a position mais ci biir noonu la amee tamit ay ñoom gars yu république des valeurs yu yu yu yu kii yu euh, euh, bu kii mu tudd encore. bu bu bu bu kii Moussa Thierno Alassane Sall. Hmm. ay ñoom Major lii ñoom ñoom docteur Faye ñeneen. Hmm. xam li ma ak hmm. ak ak ñoom Ali Bach ci lii yi ñoo ci biir mais gars yi bu ñuy waxtaan bu ñu toogee di wax quoi. mais nekkatul ay Ousmane Sonko la wala Thierno Alassane la dañ leen ciy éliminer xam nga daal ñu leen ciy éliminer. parce que Morgan parti politique daf lay di tënk. boo nekkee ci biir parti politique moo tax gars yi gën a libre foofu ñu gën a libre xam nga lu tax parce que boo nekkee ci biir parti politique mais dafa am ay bon dama lay jox benn exemple xam nga Ousmane Sonko bi mu amee bi mu amee succès ni opportuniste yu bëri dinañ ñëw waaye. Hmm. mais comme par exemple ay Pastef France man loolu laay comprendre li ma comprendre laay wax ku mel ni benn waay bu tudd Moussa Ndir euh, depuis le début man ma dama ko fekkee quoi dama ko gis quoi mais yu bëri dañu doon wax Moussa Ndir mooy gérer. muy dikkaat affaire internet yeeg lépp mais benn instant day step down quoi parce que am na gars bees yu ñëw léegi il faut ñu topp loi yi ñu topp texte yi dañoo war a voter opportunité li dañu profiter ci loolu pour mën a positionné wu biir Pastef hmm. heureusement bi ñu mel ni ñoom Aliou Sall mujje toog heureusement parce que man Tafsir Bachir ku mu wóolu man wóolu naa la aussi ah dañu waxante raay ku liggéey tamit parce que ñooñu xam. bu nekkee moom amul xaw ma rek la moo xew seen biir parce que bëgguma xam li xew seen biir la mais li nekk si kaw laay wax bu ma gisee mais tamit ñu ay bu ñu gisee lii la ok alhamdulilah maintenant gars yi pourquoi ñuy gën a libre par exemple ci 313 bi mooy hmm, en tant que waa Pastef en tant que waa République des valeurs ñoom politiciens bu ñu amee seen problème Ousmane Sonko ak Thierno Alassane ñu am seen problème seen affaire la ñoom nañ ko régler seen biir quoi mais ñun moom ñooy peuple bi dinañ def li ñu war a def. après nag ca cappaandaw ga nag après ku nekk mën nga su l' essentiel mooy foofu la donc donc bul inquiété wu ci man ma bañ a kii Sonko wala may non non man damay damay gis bigger than ok mooy damay gis par exemple il faut cent dollars sax il faut mu am benn madaar buy andi ay contre affaire di créer gars yi quoi wala benn Morgan quoi wala ba keneen quoi. waaw mais gis tamit li ngay créer yëpp créer Sonko da ngay créer mais mosu ñu la gis nga créer Thierno Alassane non non moom du déconné kon na déconné. ah kon moom du déconné déconnagul boobu ba léegi moom déconnagul. non non non non avant man ma koy avant ma koy soutenir. Mm-hmm. Euh, ci idée wam yooyu noonu. Mm-hmm. quand je soutenir waxuma nag damay bokk seen parti wala. non non soutenir parce que tamit man man arrangé wu ma kenn c'est que Morgan da a war a comprendre mooy même Thierno Alassane arrangé wu ma ko parce que mën naa tax nit ñi ko moom ci boppam. parce que man ni may def la quoi. moom moom moo am sax moom xam na ni moom fu nekk ni gars yi bëri bàyyi nañ ko ñu bëri jéppi nañ ko. élément Sonko yi mosuñu xeex mais léegi dañ ko commencé sax xeex te loolu arrangé wu ko c'est sûr waaw si si parce que mais loolu choix loolu choix choix choix élément Sonko yi la ah mais loolu tamit da koy yàqal parce que tamit le fait que da attaqué papay jàmbur ba am koo loolu moom mooy denc denc doom làq doom dóor doom te tamit loolu loolu moom la politicien doon doxal waa ok léegi waa léegi ñi koy ñi koy xeex léegi ñoom benn question laay di posé yéen euh, yéen seen bopp ngeen di xeexal wala candidat ngeen di xeexal. wala li gën ci yéen ngeen di xeexal. non li bu leen proposé dara xaar rek xaar ma wax la. man dootuma waxati xoolal dama lay wax à part d'aujourd'hui di wax parce que comme que Sénégal foofu lañ toll. non mun nga nga jaaxal Sonko mi nga jàpp di soir. te nga war te nga ne yow da nga ñëw pluralisme des des opposants ngay wut. mais yaa ngi yow da benn opposant nga ne nga bëgg ko descendre. waaw waaw waaw léegi benn affaire. Sonko gis nga dañ ne woy woy woy buy këpp gaal kenn du ko woy ci tefes dama ne woy buy këpp gaal kenn du ko woy ci tefes man du ma fekk ni ñu bëgg a xaaral ah <laughs> kon ana naa ni di nga di nga xam man man boo làkkee ma xam nga ne xamoo li may wax mais man xam naa li wax te di xam li may wax dama ne dañ ne woy buy këpp gaal kenn du ko woy ci tefes mënoo fekk benn nit boo xam ne dañ ko bëgg a jël mu si biir vindicte populaire ngay def say live di ko gën a attaqué di ko gën a wàcce dama ne. boo fekkee ni nit yaa ngi koy pexeel. d'accord mais Morgan li ma wax tey daa leer fi ñu toll nii tey. Hmm. toll parce que lii man bu nekkoon ni hmm. déglu woon nañ ma bi ma ko commencé attaqué. Hmm. tey musiba bii nii. ah prévenir prévenir woon naa la te tey musiba bi ci Ousmane Sonko la gën a métti. non Ousmane Sonko non non non non musiba amul. non grave waaw grave Morgan Morgan Morgan déglul déglul Morgan déglul dafa am jeunesse boo xam ni. comme temps Ablaye Wade la ñoom dañu def bruit bu bëri la ñuy def ñoo ngi ci internet bi ñoo ngi kii mais dafa am ay mag yu bëri yu silencieux yu réfléchi yow ñooñu xamoo seen point de vue lan la. mais ñen mais ñen lan lañ ko xamal. yow lan lañ ko xamal. non kenn waxu fi waxu xamal encore une fois. waaw affaire bi ne fàng la nit ñi di wax mooy problème bi am temps yi. bu am temps gi lan moo ci fàng ay seen kàcc yi feeñ na di kàcc yëpp a feeñ. gone gi suñu ni daa jom mi woo woo na woo na bàyyi xolal dama ne. di nga dégg di ci ci ci yàggul xale bi génn di rëccu di baalu ay waajuram dem nañ jëli ji ko gars yi ñu ngi koy jéem a protéger mënuñu ko protéger lu koy wax loolu dina du ko xam moom dina génn te dina wax ni lépp gone gi ci boppam ñu ko waxoon luñ ko waxoon yëpp amul xaar xaar ma wax la gone gi xaalis luñ ko digaloon joxuñu ko ko gone gi passeport ñu ko loon joxuñu ko ko gone gi dina wax dina wili pande lépp gis ne nit gor kenn du ko taqal rawatina nag di ko takkali ay të viol yàlla du ci ànd yeneen bi du ci ànd. kan mooy gor bi noonu foofu. Eh, Ousmane Sonko laa la wax ab gor gor laa la ah, wax gor. yow gor nga gor kenn du ko takkal laa wax gor kenn du ko takkal. Ah, waaw wuy ma waaw wuy ma wuy ma xam nga xam nga Morgan encore une fois. Hmm. damay wax pomme de terre ngay wax Angleterre. ah waaw ah. man dam la ni. Hmm. du question takkal de. Hmm. man da ma ni depuis le début xam nga gars yaa ngi naan léegi yow yaa ko wax damay def ay live di créer Sonko parce que bi mu commencé di déraper. di jubale ay Moussa Diop ak Barthélemy Dias. waaw ah. di dugg ci yu kenn xamul man boobu laa commencé attaqué. man da ngaa xam lu tax nga jubale leen. mais Barthélemy Dias wax li muy wax amu ci xam même bu dee dëgg la justice preuve la xam Barthélemy Dias yorul ay këy yu mun a prouver yu mun a prouver devant la justice euh, euh. sénégalaise que kii nii que que lu ko jiiñ moom mu gis ñaar ñoo xam ni kii mun na koo yóbbu mu bëgg a sauver Barthélemy Dias. mu ñëw wax ak moom ne ko baalante leen mën ngeen baalante baal ko jéggal ko mais loolu am na. non bés loolu loolu. non ah mais non si yow xamoo lan moo tax. léegi soo ko ko léegi bu ñu laajee affaire bi ñëpp naan dafa nelaw dafa nelaw xam loolu d'accord nañ ci. mais kan kan kan ku nu mu nelawee. non non non li mu dugg gàlle boobu noonu xam dafa nelaw foofu. ak ni mu ko defee quoi. nu mu nelawee. ku sa ndigg di métti nga dem faju ji amoo amoo. mais moom moom intention faju la. parce li mu wax rek ñun loolu la ñu mën a dégg. mais dëgg la ko sosal ci dara. waaw paju mooy intention. waaw xam nga yow xamoo ndax waa léegi Morgan yow yow noo xamee ni dëgg la. lu ma xamee ni dëgg la mooy dama kaa jàppee sama bopp. waaw léegi yow ma laa la benn question. man oh eh barki rasulillahi bu ma doonoon président. billahi bu ma doonoon président dinaa génn di dem dinaa dem sama gaale famille benn tali dafa añee kenn mënu ma ko tere. bu ma doon président dinaa génn di dem sama gaale benn tali di fa lekk ceebu ndey faat ndey faat jong kan moom ma ko mën a tere parce que président la mooy qu'est-ce que cela veut dire yëkkateel niveau débat bi nag bàyyi la ngay def yaa ngi yaa ngi wàcc niveau bi de ah non non non non non dama ne du ma pré doon président ba du ma dem ceeb coob coob ceebu ku ma ki ma yore woon ci may coob ci ceebam ca avant maa doon ma doon président du ma ko changé loo bërki dem ma président Macky Sall génn fi yor otom di di xandaalu ngeen ne ngeen ne léegi moom moom moom président am na droit moom kese. kan moo di kan moo di nice nice. mais ah, yow yow julli nit ne nice nice. yow yow li ñuy jiñ li ñuy jiñ li ñuy jiñ nii Sonko ah. hmm. mais mën na am. Hmm. mën na am. lan fi ñu yem laa xam mooy dugg dugg ci kër yooyu dugg ci kër yooyu dugg ci kër yi daal. dugg ci kër yan ci kër yi comme kër boobu mu dugg def erreur dugg fa ba tax ñu tuumaal ko. ah kër kooku kër dëmm la kër dëmm la wala lan kër kër kooku kër lan la kër dëmm la wala. loolu kër non non du kër kii kër def peinture bu rouge bi rek. waaw waxuma la dama ne këru lan la. dugg ci kër mel ni ay ay dëmm fa toogoon mu dugg fa. ba foofu nan lay fonctionné. da doon seen wala. kër yooyu kër yooyu kër yooyu xam nga ni muy fonctionné. d' après li ma gars non nañ foofu ba. bàyyil d' après. non non lu la may wax foofu d' bi mooy. man gëj naa Sénégal. voilà ci loolu. Uh-huh. baal d'après man dugg naa ci te dugg naa ci kër yooyu te tëddeewu ma kenn kenn tëddeewu ma. dégg waaye waaye Mborgane yow déglu ma xaar ma wax la gars yi ñu ne lan lañ ma wax ñu ne mooy stratégie. gaa yan gaa yan yow bàyyi gaa nee nañ non non non non xamoo lan laay wax donc da ngay déglu. ah gars yi nee nañ ma foofu dañ fay dugg ñu wax dama ni dama ni waxuma la waxi Sonko wala dama wax rek pour investir Sénégalais yi xamoo fan laa jëm. ba xam naa fa nga jëm mu boo noppee ma wax la boo noppee ma wax la fa jëm. stratégie seen waxuma de damay wax damay joxe benn information pour ñu ngi def attention. yow yaa jox information Sénégalais yi nekk foofu te yow nga ne da nga fa gëj nga bëgg leen jox information ci kër yooyu. yow ñi ñaata ñoo lay déglu mais Morgan bàyyi sa déconné ya ak ak gars yi. non non jox leen information. kon eh, nañ la ngay ñoom ñu ne ma dañ ma wax ne la ñu ne seen stratégie mooy lan da ngay ñëw ñu massé la massage bu normal quoi. Hmm. ok. Hmm. léegi bu ñu lay massé. Hmm. ñoom ñoo koy tey effleurer say parties intimes. dañ koy xaw a effleurer. léegi bi ñu ko effleuré xool xam nga foofu xam nga foofu moom yow doo contrôlé bu fekkee ni sa xel dafa nekk yenn affaire doo contrôlé cerveau bi mooy mooy ki ñu ne nag foofu à part de sa réaction lañ lay proposé après da nga bëgg extra massage ou pas. kon ñoon dañ lay violé. non non léegi nag yow bu fekkee réagiroo ñu xam ne fii moom fii moom. dëgg rek ñu pouvoir. eh waaye loolu neex kon xaaral ma ñëw tam fa xaaral ma ñëw tam fan la fan la. yow est-ce que est ko xool. waaye kooku kay sa waay kon nag bu wàccee Sénégal mu fa laa jubali direct. nañ nga faa dem. ah waaye nañ dem bokk nañ dem ah bu ma la fi bàyyee di de. ah nañ dem ñu effleuré ñu dootu ma la fi bàyyee di de. ñun liñ doon def def nañ ko bu yàgg. non non fi bàyyi bépp. dañuy dañuy dem ci effleuré ñu de. dañ dem ba nekk ay <laughs> dañ dem ba nekk ay paakat yaa ngi delluwaat. ah mais lu neex moom paa bëgg na ko mag bëgg na ko gone bëgg na ko nañ dem ñu effleuré ñu. instant bi daal da nga bëgg rek ñu banaliser affaire bi. <laughs> <laughs> non mais dama ne ah, man mais yow kon kon yow Sénégal kenn waratul sonn. foofu moom kenn waru loolu jarul sa takk jabar jarul suuf rek kon jarul takk jabar ni da ngay sonn rek dem ñu tëdd ñu effleuré la nga kii non non nangul non non nangul benn affaire nangul been affaire gis nga Morgan gis nga loolu loolu moom ci yàlla loolu loolu la ñu war a njëkk a génne Sénégal déjà. waaw kan moo la wax loolu waaw la wax loolu moom. kooku moom man ay gars ay gars fa jaar. <laughs> ay xam naa ay Morgan yow xam na xam nga ñu bëri ma xam ñu bëri. yii waaw mais nag ah, man nag man man xama man ñoom ñoom Pape Siré xam ak gars yi mais gars yi jaaruñu fa ñoom xam saa jaaraguñ fa de. gars yi ma xam jaar pëccoo ñoom ñëpp ah, gars yi jaaraguñ fa jooju Hamza Hamza <laughs> non ah bàyyi ndig Hamza bi waaye Hamza. ah ndig waaw Hamza am na ndig du fa jaar moom. non <laughs> la ah. <laughs> léegi wuyu ma wuyu ma Morgan dama lay wax quoi déglu bu baax déglu bu baax. te Isa Isa Isa tam waa parcelle Isa ñëwoon moom tamit dina fa jaar de Isa boo fi jógee jaaral ci salon yi. bu ñu paree bu ñu paree Sonko ba pare xam la moo war a nekk débat mais nan la ñuy def ba tëj kër yu xoolal kër googu bu amul woon mais xoolal. fitna bi yëpp du am wala ñu xool ni ñu koy defee wala gars yi changé xaw ma daal ni koy defee mais lii moom kër yi moom ay massage yi ces histoires de massage là non fitna la problème la quoi. kon kenn ku kon bu ñu ko négligé quoi il faut ñu régler problème boobu tamit. yow fu ne nii loo gis mooy ñu tëj ko. gars yi ay chômeur. non waay mais mais ñëpp nee nañu man de li ma ñëpp wax la wax nee nañu prostitution déguisée moo fa am. ah mais kon yow yow ñi nga xam bëri bëri na ay prostituées mais mais yow gis nga waa. góor prostitué parce que ñu nga wax yëpp ñu ñu xam yëpp jaar nañ fa ñu ñu ñu ñu ñu leen ñu ba ba mujj leen def massage xaw ma nu nga ko woowee effleuré. waxuma la xam ñëpp de xam naa la est ce naa dem nga fa. Mor Mor ma jéem a dugal Mor Gueye baal di a dugal xaaral ma yónnee la ma yónnee la publicité gis nga gars <laughs> ah, xool xoolal dañu wane mais affaire bu garaaw mooy foofu de waa Sweet Spa xaw ma la. xaw ma daal gis nga ko mën naa la ko yónnee nga def ko sa hmm? boobu seen publicité sur Facebook mais affaire affaire bu garaaw xam nga li ma bëgg wax. mais Pepsi xaar ah, ma léegi dama lay expliquer man man Mollah Morgun ah man Mollah Morgun. gis nga wax ji ngay wax nii dama ko yàgg a dégg Sénégal yëpp ak may seere billaahi laay wax wallahi wa taalaahi bu ma fenee yàlla na ma safara jël addiya barke Seydina Muhammad dama doon dégg li ngay dégg ma jóg ne damay dem ci salon yi pour xool ce que dëgg la. ma jóge sama gàlle yoof ñëpp nga may déglu nag mm-hmm. bu fekkee dama yokk lenn ci fen ci li may wax yàlla na ma safara jël addiya yàlla bu ma gisante àjjana ah. ma ne damay xool testé la ñuy wax est-ce que dëgg la ma dugg ci salon de massage fekk fa ay jigéen saa ndey yu toog ma ñëw nuyu leen ne leen dama bëggoon massage sama yaram ñu ne ma ah ok ne ma massage bi tel vingt mille francs la ma ne ok ma ne mais beneen ma ne ma ne benn jigéen bi benn massage laa bëgg quoi mais massage genre massage laalaale la massage sexuel ne mais man damay dégg massage yooyu est-ce que yéen da ngeen di def massage yooyu massage yooyu da ngay massé nit ba pare après xam nga ngeen mujj ci laalante ñamante daal. barke alxuraan yow kay yow kay li ma daan nga faral Ousmane Sonko nga nga nga. non dafa ndax non non non dama lay wax rek dama lay wax pour sénégalais comprendre maintenant stratégie bi c'était pour xam est-ce que dëgg la. waaw bu ma waxee am lan nañ mën nañ xalaat ni yow undercover kap nga. waaw undercover lan man ñu man man man undercover ma ñëw ak sama forox toll ak taxaw undercover. Morgan Morgan Morgan. massage plus laa laajte ñu ne ma loolu amu fi ba pare ma nag yamala ma yamala ma wuyu ma. non non ma bàyyi ma wax la nga barke ma dañ ne ma nu muy si tay ñuy wax ñun de ñun loolu tax ñoo jóg. dañuy liggéey massage la ñuy def bu dee dafa am la metti nga wax ñu ñu massé la nga fay ñu suñu xaalis nga dem sa yoon ñoom ñoo ma ko wax ma ne leen maa ngi jégalu dama doon xool rek ba xam parce que dañ maa wax ni fii am na ay massage yoo xam ne dañ lay tëddee mais comme loolu amu fi ah bisimilah ma fay leen sama xaalis ñu maase ma normalement normalement ma jóg dem sama yoon. billahi yow est-ce que doo yow est-ce que doo conseiller Sonko gars yi ah ah moo tax man moo tax man yow wax na ah. moo tax sa gars yi ngay wax na ñoo la wax loolu moom. waa léegi déglu ma expliqué léegi nag may ma. ah man de am naa ci man kenn waxuma nag xam nga dañ laa wax man ñu ma man dama koo dund dama ko dund. waaw waaw léegi may ma ñëw rek may ma ñëw on fait usage du terme lan la. Hmm. clandestin wala clandestine de de euh, euh, euh, clandestinité boobu. clandestinité ñu def seen affiche bu bu ngand affiche clandestinité nan lay amee. parce que da ngay nëbbatu ci suuf. non comment. mooy lan kuy def non non kuy def ay kuy def publicité plaque publicitaire ci mbedd yi di nëbbatu. loolu amul beps waaw léegi dégg waaw déglu ma déglu ma rek déglu ma. non non non non beps loolu amul. kuy def affiche. waaw mais mais ma rek. am foofu. ñoom. ñoom ñoom kon a nañu taxaw rek ci dikk euh, euh, Ponti wala fële ñu ne ñun ay caga la ñu taxaw defuñu loolu raay. waaye Ponti amatul léegi. non ah, non ngaaka laa man bu njëkk. waaw pon Ponti bu yàgg ba la Ponti dafa amati léegi ville amatul léegi ville. man man ay xurbu ay xurbu kii yooyu la. yow yow almadi nga xamoon ki nga xamoon ville nga xamoon plateau loolu jeex na plateau léegi la gën a tëppër li léegi wuy ma. Hmm. Euh, léegi yow boo ñëwee si ñoom rek nga ni mais est-ce que kii ngeen. <laughs> <laughs> kii moom ay laal la gars non yow da ngaa foog ne damaa ñëw naa ah, est-ce que est-ce que fii dañuy laalante déedéet waaye man Bebs am naa bopp. am naa bopp dafa am saa neex théâtre boobu mu naan eh, eh, gars bi di jéem a naan ay sal quoi naan non dañu bëgg mu ne non caga caga <laughs> comme yow genre nga ñëwee. déedéet déedéet je suis stratégique de. non non non non non non système laa waxee de am naa main de. système laa waxee ah. ko gel bi moo ajji lu may bëgg a wax gel bi bu mu ajjee mu ne ma loolu amu fi nekk ñu fi pour loolu du ñuy caga ñu dañuy liggéey am na ñu am jëkkër ñu fa nekk. mën na am nga nekk policier. Eh, waaye yow kon mën am nga mais il faut ñu koo fa seen bopp Morgan loolu mais Peps est-ce que que dina la neex est que dina la neex yow sa rak di liggéeyee foofu dégg ni ay nit naan ñoom salon yooyu yëpp ñu fa ne ay caga lañ est que loolu dina la neex te mu am ay borom jëkkër. yu nekk foofu noonu di liggéey di daan seen doole am ñu am ah. njaboot nekk fa di daan seen doole ñu jël loolu noonu bugg ne salon boo xam ni nit yi dañ ciy liggéey di ci daan seen doole di ci jox seen njaboot bu loolu loyal ngeen bugg a jël ne non salon képp ku fay liggéey caga nga képp ku fay liggéey da ngay ah. jaay sa bopp waaw kon Adja Sarr kon du caga bàyyi leen Adja Sarr non Adja Sarr kenn waxagul ni ca day cagot kenn waxagul ah. day cagot déedéet déedéet déedéet ma Morgan Morgan gars yi groupe la quoi ñenn ñi mën nañ nekk caga ah fekk borom borom place bi sax du ko yëg xam nga li ma ñi mën nañ nekk nit ñu baax parce que affaire de groupe la quoi ku nekk ak intention yi nga ñëwee. mais loolu warul tax ñu tëj dara bu doon loolu kay Sénégal nañ ko tëj ndax Sénégal am nañu bon am nay caga am nay góor jigéen am nay bandi est-ce que dafa tax ñu tëj Sénégal. ñu tëj non mais mais dañ koy tëj parce que affaire bi majorité bi nee nañ la. majorité ban majorité dañ la ne. mais sénégalais yi ak mais Morgan lii nag wala back and forth lay nekk damay wax nga bañ nga wax ma du yomb seet duñ ci génn. ah mais moom kay majorité majorité bi na gaa yi dem na gaa yi dem léegi na gaa yi def euh, caméra cachée am na yoo xam ne na gaa yi def ay caméra cachée am nga mais bu ñu bu ñu wanee tur kii nit ñi mais ñu won sénégalais yi li fa xew loolu kay dafa yomb. waaw ah. na gaa yi def ay caméra cachée dem xoolal testé ñu bëri après ñu xool léegi nag problème bi mooy loolu bokk na ci li Macky Sall la moo tax Macky Sall war a fi jëlee xam nga lu tax. Hmm. parce que. lépp lu fa bon li ama mooy hmm. gars yi ni ñu appauvrir peuple bi ko mais loolu ñoo ko war am na ñu bëri ñoo xam ne sax ñoo ngi cagatu mais sës peut dañoo faible seen iman faible mais sës moo tax ñuy cagatu. Hmm. am na ñoo xam ni ñàkk bi mënuñu dékku ñàkk bi quoi parce que dañ naan man bu yeboo naa kii mais sama doom rek na sama doom na am lu mu lekk ko man naa sacrifier sam bu yeboo ma dem safara xam nga am na ñuy demee maayen yooyu ko mais kan moo créé loolu système bi moment boo xam ne ñoom ñoo ngi jël alal bu du jeex di ko foowee quoi di foowee donc loolu rek loolu loolu rek ñoom ni ñu toogee seetaan loolu rek war na tax gaay na na nit ñi war a focus ci fan la combat bi ak nan lañ ko war a defee ko xam nga. man encore une fois Morgan dama ni Ousmane Sonko ah. dañ hmm. dellu ci Sonko man je n'ai rien contre Ousmane Sonko mais euh, gisuma moom en tant nit quoi dama ko respecté jullit la et tout nit ki quoi mais li mu doon porté. Hmm. projet bi mu doon portel gars yi. Hmm. man projet boobu par rapport ak natt yi ko yàlla teg nii ah. ah dafa dafa teg nattu. à sosal nattu la waaw sosalaat nattu la ñu sosal ko nattu la. waaye non non comprendre loo déglu ma gis nga déggoo may la affaire bi dafa jeexagul Morgan affaire bi mënuñu si prononcé wu tamit. mënuñu wax lii la wala leel waaw loolu moom mënuñu ko wax moom. mais yow yaa wax nattu yow yaa wax nattu ci sa discours. mais mais nattu la mais borom am njabootam am doomam. waaw waaw ñu koy sos waaw waaw dëgg la waaw waaw nattu la waaw loolu nattu la mais est ce que na ko moom mën na ci rëcc est ce que loolu mën na ci rëcc. Ah. waaw mais bu ko yàlla loolu nag ci loxo yàlla la des. Ah, am ah. ñoo xam ne duñ ci mais yàlla àllaaxira la leen di fayee. Hmm. bu nekkee dañoo innocent am ñoo xam ni tamit yàlla daf leen di feeñal dafay dafay wane comme ñoom Youssouf yàlla fii ci dunia bi lay wane ni ñoom ils étaient innocents donc am na loo xam ni ñun li alxuraan wax la rek côté ay njaaloo beeg yooyu nañ yem fi ñu war a yem mooy fekkee wu ñu gisuñu te yàlla condition yi daf ko métti anyway hmm. ñun ñu si wax dara mais ñun nag en tant que sénégalais yuy ut benn leader njiit ah. Hmm. léegi nag ñun bu ñu defee erreur. na ci nangu arrière ne i man erreur bi dama war a fay quoi dama war fay parce que erreur bi dafa garaaw quoi ci sama peuple xam nga mm. léegi man li may fayee mooy damay arrière xam nga euh, gars yi man de lii la woon wax dëgg yàlla man Ousmane Sonko man ma def erreur defuma lu bon nag xaar rek ma wax la defuma lu bon jëm ma fa def lu bon mais le fait génn sama kër erreur peut-être c'est trop tard pour wax ko mais sama ma génn sama kër erreur la mais il faut que ma fay quoi que je paye parce que man dama war a joxe un exemple man rôle modèle la war a nekk maintenant. man projet bi mais foofu laa bëggoon ñu taxaw nag balaa ngaa dem quoi lan mooy erreur bi. kon génn kër erreur la ñëw rek mooy jógee këram à 22h am xam li ma la àndoog say garde corps mu am ay kii nga dugg kër goo xam ni dafa am yeneen kër yu mel ni moom yoo xam ni baaxul waxuma kër googu baaxul. xam nga mais amee te li bi rek mooy xool ay aji saar ak situation ni mu demee tey erreur bi moo tax affaire mujj fi mu fi mu mujj tey. mais non attends attends attends attends Bebs lu baax nit mun na ko jéem a foog ni erreur la mu mu koy utiliser far colle bu doon erreur la bu baax kon tey dañ ciy réussir te man maa la wax ne duñ ci réussir réussite du ci am du man man man léegi Bebs. xam nga. waaye waaye waaye waaye kaay ma laaj la benn affaire. Hmm. moom en tant que mu yoola solo su génnoon à 22 hmm. bu ñu romboon benn gars bu xaw a mandi nii mel ni ku mandi romb ko rek ne ko pom jiire ko góor. Hmm. mu dee. moo xam ni foofu ah. mais loolu la yàlla bindoon ci destin foofu la war a yem. du question yàlla bindoon. ah mais fagaru yàlla dafa ni. waaye fagaru ba doo dee. fagaru ba doo dee nag ma bépp nag amul nag. fagaru boo boo waree dee moom. non fagaru fagaru tey ngay dee. Morgan. waaw ah. yonent yàlla Moussa yonent na ku fagaru dee dafa musa am ci yeneen ci wax la rek. yàlla ah. yàlla musa. yàlla moom moom géej gi. Hmm. moom bant bi. moom musa. mais daf ko ni pour nga rëccal waa bani Israël jëlal effort ngay def effort bi quoi nga dóor ci géej gi mu xat yàlla mënoon na ko ni mooy borom kun fa yakun xoolal Isa ibn Mariam Jésus yaayam yàlla moo ne surtout Mariam mu ne mais bi muy am doom. accouchement bi était douloureux ba pare yàlla mu ne ko mu indi benn kuur yàlla ne ko boo bëggee lekk gës sëmal dajee bi. mais yàlla waxatul ñun ñun yàlla direct de. loolu jeex na yàlla waxatul ak ñun direct de. il faut nga xam ne mbër tam boo ah, ñu yàlla doon wax ak ñoom direct. même même même Badar même Badar. loolu amatul hmm. mooy chaque fois yàlla lim ñuy won mais da ngay def effort ba pare ko yow après mu fekk waaw li ñu naan taay yoo kame tawaxalu alallah mënoo ko wax te te te te kiiwoo sa gémé sa gëléem mais defoo sa tegoo sa gëléem en sécurité ba. léegi bàyyi ma woon la pexe noonu. bàyyi ma woon la pexe noonu. xaaral ma daaneel xaaral damay daaneel. daaneel la ma woon la pexe noonu ci yow jaarale ko ci yow. léegi woon la pexe noonu waaw léegi xaaral ma daaneel rek. daaneel la moom bi muy génn këram ah. Hmm. moom dafa am ay jeunes yu yaakaar ci moom. Hmm. waaw am Sénégal fu mu toll. gars ah. yi mënoo génnee noonu quoi. mais pourquoi. mais mais mais après. mais tu dois mettre sa bopp en sécurité. waaye am na ñu doon def seen bopp sécurité yàlla wàcce leen sama waa ji. non non non yow yow non non mais mais loolu beneen domaine la mais dama la ko wax fagaru bi mais mais Morgun wax naa la mais da laaj la lii lii question la bu ma lay laaj est que nit mun na fagaru ba jour bu mu war a dee du ko dee loolu laa la la question la. kese nga tontu ma waaw wala déedéet. est-ce que nit mun na fagaru ba yàlla ne tey lay dee te kii moo koy rey te jour boobu kooku du ko rey question la nag. tontu ma mën naa laaj euh, léegi léegi loolu loolu nan lay demee euh, yàlla fi ñu koy waxee fan la alluwal mahfuus la wala ban niveau lañ koy. dama ne yàlla ne ah, tey maanaam yàlla décidé ni tey kii day dee yàlla décidé ne yow tey da ngay dee léegi ma wax yalla décidé ne tey da ngay dee est-ce que mun nga fagaru fagaru ba tey doo dee question la tontu waa léegi d' accord d' accord naa daa répondre question mais avant may répondre dama lay laaj est ce que lan moo tax ñu naan euh, pay saraxe day guddal fan sa fan day gudd quoi. non man yooyu yëpp man man du question bi laa bëgg nga nga tontu ma mu jeex ba xam. saraxe day guddal ah saraxe day guddal fan. donc non non non dama lay expliquer concept bi pour nga xam li xew. nan kon saraxe mun na laa jëlee mun na saraxe mun na la jëlee nga war a dee tey mu yóbbu la nga dee. jëwel question bi mais may ma wax la rek naa répondre question. mais ah. may ma wax dafa am euh, ñiy bind. ñiy bind rasulullah sallallahu alayhi wasallam nee na bi mu rañaane hmm. moo ngi dégg script yi script yi moo ngi dégg xalima yi ñiy bind hmm. ok léegi ay malaaka ñooy bind quoi mooy mooy xadar yi décret yi yenn décret yi quoi hmm. comprendre ay Morgan dafa war a kii nii xam li ma la wax léegi loolu niveau benn niveau la am niveau alluwal mahfuus ci kaw alluwal lépp lu ci war a am bind nañ ko fa ba pare ak heure bi mu war a am. du foofu bind nañ fa dund ak dee wala dund bind amu fa. loolu lépp dund ku nekk jour bi ngay juddu jour bi ngay dee affaire yooyu. exactement deuxième bi script bi déglu ma rek script bi seen niveau ñoom niveau boobu. Hmm. ñoom foofu la affaire yi sa ram ñu ne Morgan du am xaalis tey Morgan ñaan benn ñaan ñoom li ñu doon bind bu décret boobu ah. Hmm. ñoom ñoom seen poste mën na changer. Hmm. droit droit mën na ko changé ko waaw loolu xam naa ko la le fait que ñoom ñuy bind droit bi di changé mais day fekk alluwal mahfous programmé na ko bind nañ ko dafa bu yàgg. Hmm. léegi kon dund ak dee dund ak dee da cee bokk dañ koy effacé du heure dund ak heure dee dañ koy effacé di ko changé. madame Mbaye la madame may la ban niveau ngay waxee c'est que dama en fait lu la ma andi la loolu. léegi euh, léegi expliqué ma ci niveau yëpp ba xam dund ak dee bés buñ ko yàlla programmé nit mun na fexe ba changé ko. wala dañ koy changé loolu laa bëgg a xam. non nit mënul changé yow tamit nit nan la ko xanaa ay doigts ko yàlla Morgan yàlla moo moom lépp lu ko neex lay def loolu bu ko fàtte. ok mën na toog bu ko neexee mu canc maayeen yàlla mën ne damay rey kii mu toog bu yàgg te du ma ko reyati garaaw baa leen mu dund mais lan lañ ci mën. man question laa laaj prouvé wu ma dara man question rek laa laaj même bu ma xamee sax question laa laaj ok Matar pexe noonu lañ jëm ci pexe noonu. mais mooy que léegi ah, a yomb. pour nga mm. comprendre. Mm. mooy gis nga booy waxtaan ci affaire yu demee nii. Ah. Mm. il faut nga vider sa cerveau nga ni faraluma kenn. non faraluma kenn waaw léegi dëgg bi ngay dox mais xam nga sa dëgg des vérités humaines universelles. peut am na mais tamit bon wareef wareef. mais man man dama lay poser question rek yaay tontu man expliqué wu dara mais dama question laa laaj mais léegi ok nañ dem ci pexeer noonu. bépp ba ngay jog ba ngay jóg yow nekk ci sa camion. di wax ak ab ndaw l'intention n'était pas négative da ko yëkkati da nga yëkkati sa biir ne xoolal sama soxna si loolu wax nga ma ko direct xoolal sama soxna si lu mu def dafa jaxase euh, ab ab ab yéreem ci samay pour ak yar sax dafa jaxase ab yéreem ci sama yére génn woon ko n'est-ce pa mm-hmm. pexeen noonu indi ko ci à que yow dangaa génne sa stringu jabar woon ko ko di ko xool sama jabar lu mu def eh, eh, eh, non moom lu wax mo da ngaa bëgg lu bon <laughs> ok waaw léegi dafa génne yow nga génne sa slip won ko ko moom mu jàpp ni yow slip ba ko won strategi la pour après jéem a xool na nga ko tëddee ci la wax moom ne ay mbirum caga nangam nangam mais man jàpp naa ni. ko <laughs> booy Bosniak yow Bosniak boobu gis nga ko yow. ah. ma ne kooku di vrai poste ñàkk dana la. waaw nag waaw léegi nag ah ñëwul foofu lañ taxawal foofu taxawal foofu taxawal foofu. laal i laal Iba Iba gis daje nag moom kay gàllankoor. Ndiawar waaw waaw léegi eh, yow. waaye ñun non dafa daal Morgan dañu waxante raay. non léegi dañu wax mu jeex Morgan ñun ay booy taxawal lañu ay nante lañu wala mais Morgan bu ñu nee bay jaaxal ci mbalit bi nag ah mais du ñu dem nag di jaaxal ci yenn mbalit yi gars yi ka moom moom ah. mais mais xoolal xoolal Morgan <laughs> Morgan. kooku <laughs> non man ma woo. da koy moom day promote boppam dèjà waaye ay slip Morgan yow xam nga. bu ñu waa léegi waa ah, pexe noonu ngi doon rek. waa pexe noonu. ñun bu ñu man ma jógoon pour xëpp ci gaan yow xam nga nu mu demee. waaw mais waxuma la slip ay poil pubien laa leen di ragaleel ay poil pubien <laughs> comprendre nga li ma la. bu nekkoon dañu dëngal quoi. waaw ok yow ñun ñu dox para dañuy dox para nga naan ñu fi ay affaire slip lañ ma wax slip. <laughs> waaw léegi waaw waaw waaw très bien mais man foofu laay waxee rek. dox yaa ngi doog a ñëw. léegi pexe noonu waaw non pexe noonu la ñuy indi. pexe noonu kooku kooku kooku dañoo créé woon benn kii pour de euh, euh, whatsapp am na benn gars Seydina Mbeng. Hmm. Euh, ñoom ñaar dañoo amoon ay kata fa naa dafa gëm diine quoi et tout. xam xamakel bi après foofu la ñu découvrir ne ndekete l'islam rek la bañ moom lan moo ko ci amaloon njariñ dafa mel ni affaire oustaz euh, oustaz euh, euh, Taïb Socé li ko daloon gisoo gars yi dañu commencé noonu l'islam dañu naan waaye <laughs> ah, ñii di ñëw fii di rey ñi ñi ci ay ay kii xoolal oustaz yëpp a yem waaw genre stratégie iblis la quoi. waaw léegi waaw léegi léegi d' accord d' accord naa. waaw léegi kon yow kon yow yow léegi yow léegi kon yow mun nañ jàpp ni yow da nga war a. taxaw ci Sénégal yëpp jéggalu ne yow sa slip bu nga sa li soxna bu nga ko woon amoo droit ah. non non man lan laa mën def mooy ah. damaa jël kaamilu alxuraan kaamil bi laa jël hmm. ma teg ci sama loxo hmm. ma ni billahi wallahi tallahi soxna si day fekk léegi lan moo tax man man dama ko naroon négli dama ko naroon ignoré sax xam la la mais wan nga ko wan nga ko wan nga ko slip wala wanoo ko slip non déggoo mani la man yow gis nga camion euh, routier laa waaw xam nga ñëpp ñu dëkk Amérique déglu ma rek machine machine bi nga xam ni ci la ñuy woolee mais daf ci bon bu may joobi sama jabar daf may defaral kii rangel ma jox ma ay coob yeeg yooyu ma dugal sama frigo. Mm. et tout parce que damay bëgg ma lekk lekk mbedd yi. right mm, mm. mais ak sama yëre yi may kii parce que du ma am temps di fóot wala wareef. léegi nag mais benn instant da ngay tar da ngay dem rek dama dem rek jël. jël affaire yi waaw ci bi ci biir affaire dugal ko ci trash bag bi mooy euh, ci mbuusu mbalit sa mbuusu mbalit ci laa ko parce que dama tardé woon quoi xam nga affaire ay ay rendez-vous hmm. bi ma dawee rek ba dem ba ci client bi. Hmm. ba ba kii ba pàkkam ci client bi léegi laa am temps nag di di lem yére yi parce que boo ko bàyyi noonu dafay froissé moom moment boobu ñoo ngi wax ñu ne te ñoom ñëpp ñoo koy utilisé ah ñoo xam li ma la mu ne euh, ma ne ko xoolal rek sama jabar xool la fii laa ngi jigéen laa ko doon wax. loolu vidéo wala wala audio. déglu déglu ma rek déglu ma. non vidéo la ah? vidéo. non non vidéo lañ doon wax ma ak moom. waaw kon yow yow du sa soxna yaa ngi koy woo vidéo. dëgguma dëgguma nga ni. moom du sa soxna non. waxee daal sa soxna. lan ngay woowee ku dul sa soxna ba di ko woo whatsapp vidéo. Morgan Morgan man man man man maa la ne man. damaa ñëw ne benn yow lan ba daan ma teg niveau man damaa woote pour nekk président. waxuma la loolu waxuma la loolu non nit ak nit laay def doye. non analyse nit ak nit ce que nit est-ce que nit. est-ce que jullit war na mën a wax ak doomu aadama bay ba ay woo vidéo ku dul jabaram di ko woo vidéo di ko woo di ko xool mu lay xool. xaaral moo gën xaaral. Hmm. man bu ma nekkoon ñoom Macky Sall nekk sax ma xam ma xam moom sax moom lu lu yé lu ma lu yéeg Macky Sall wàccu la lu yéeg Macky Sall wàccu la non Matar lu yéeg Macky Sall wàccu la fa yàllaahu lu yéeg Macky Sall wàccu la yow. non waaw defal naa waaw d'accord mais boo dégluwul tamit duñu mën moom. xamoon ne nii la bonee moom ci boppam. waaw ah, non non koy xamee. du du ma wax ak moom quoi xam nga moo ko may. waaw léegi loolu erreur la la léegi nañ yem foofu da ngay nangu say erreur tamit le fait que nga wax ak moom vidéo te du sa jabar erreur la wala du erreur. non non duñ fa yem non non duñ fa yem déglu rek déglu. non dañuy dem ok wuy ma. Hmm. moom hmm. moom ah. dafa nekkoon benn nit ñi bu seen kenn faale wu. bu hmm. profité ci. bësu Assane Diouf la profité. man waxuma loolu de yow yaa ngi dugg feneen man waxuma loolu de man bugguma sax kooku nekk sujet dama ne. yow laa nekk yow yow laa nekk di juger dama ne yow est-ce que islam ak la nga gëm nangul na la ku dul sa jabar nga woo ko woo mu lay xool nga koy xool loolu est-ce que yàlla nangul na la ko. mais bien sûr. nangul na la ko ça dépend bu nekkee damaa bu nekkee damaa sësoon par exemple dama lay wax dama lay répondre par rapport ak li nga may jéem a coincé quoi. waaw bu nekkee da bu nekkee par exemple man. Hmm. da ok dafa mel ni dafa mel ni julli ñu ne ñu ne boo nuyoo jigéen boo nuyoo jigéen. Hmm. ah. Hmm. Euh, euh, xam nga dafa araam ñu ñëpp xam nañ ko hmm. mais gars waxuma la nuyu jigéen ñaata yoon la ñoo dañoo dem ba dañoo raay jigéen raay waxuma la loolu loolu yàlla wàccewu la ko même boo ko defee tam yàlla nanguwu ko Morgan da ngay déglu ay déglu naa déglu naa non da ngay posé des questions mais déglul hmm. ñun dañoo dem rasulullah salaa sallam dal na ko hmm. d' après benn luñ ma expliqué d' après benn borom xam-xam lu ma wax teguma bët ci xadis bi mais masta kii jigéen whatever. Hmm. tayu ko tayu ko woon quoi tayu ko bon amin c'était pas exactement cela après borom xam-xam yi ñoom après dañu réagir. Hmm. seen domaine la comprendre li ma la. Hmm. mais li ñu bëgg a expliquer foofu mooy. effet bi la affaire bi di def ko ah. ñun ñun dañoo yàgg dañoo yàgg ah. ci ci caaxaan ci mbalit bi ba nga xam ne en tant que jeune déglu ma rek en tant que jeune sénégalais booy taxaw et tout mais Morgan yow tey boo nuyu woon jigéen nan la def effet. non du ma def ko de. mais ok léegi ibaadu bi déglu rek déglu déglu. Mm. ki nga xam ni moom ibaadu la wala lu mu mënta nekk. Mm. Euh, euh, sufi wala lu mu mënta nekk koo xam ni da ragal yàlla moo tax moom mësul jege jigéen. Mm. kooku bu ko jigéen laalee. dafay am effet yu grave yu muy def ci moom. ok. man kooku appel vidéo bu la woowee appel vidéo man woote wu ma ibaadu quoi lu ma woote maa ngi def lu ma mën nag. Ah, kon maanaam yow woote boobu yaa ngi da nga ma gëmloo ni woote boobu maa ngi naan doon nga ci doon nga ci coppati coppati coppati amoon nga ci coppati daal amoon nga ci yëg-yëg daal. non non non boo wax loolu li ma la wax waxuma lool de. ah nee nga yow doo ñooñu nga xam ne kii maanaam. par rapport fi ngay waxee dam la ni d' abord. moom. xool ah. am fait aucun effet. ko loo ko defee vidéo kon yow. Morgan Morgan kooku dañu yàgg doon wax. ma koy oh bëgguma di def di wax. waaw yaa woo wala moo woo. sista la sista bu nekk ci galère. non yow yàlla mën a yow nekk te yàlla tax dama ne. yaa woo vidéo wala moo woo vidéo. je sais même kan moo woo ma wax dëgg yàlla parce tellement c' était pas la première fois et man mënoo fi nekk def sama procès man man jéem a nekk président <laughs> Sénégal. non la lool non. mais attends pourquoi nga bëgg procès bi nekk parce que pourquoi nga bëgg appesanté. mais parce que yàlla da laa yàlla daf la teg bu mel noonu. yàlla wan na leen ni fenkat la. waaw la ma jël kaamil bi ma teg ci sama loxo. waaw mais yow tam yàlla wan na leen ni yow matoo yow tam yàlla wan na leen ni yow matoo moom bu ko wanee ni fenkat la yow wan na leen ni yow matoo. wan na leen ni moom bu la bëggee teg ay mbiram dara koy teg. déglu waa léegi waa léegi xam la mooy différence man loolu bu ma daloon bu nekkoon moment boo xam ne dama bëgg nekk président Sénégal damay démissionné quoi dootu ma nekk. mais mais président ak ñàkk président. ki nattu nattu ñëpp lay dal. nattu amul président. ba léegi may ma ma expliqué la ñaari histoire déglu ma bu baax rasulullah salaa salaam benn jour. Hmm. ànd ak soxnaam Safiya. ok euh, radiyallahu anha dafay wax Safiya la nga mu ñëw am benn saxaaba bu ko gis ci lëndëm bi mu ànd ak jigéen mais leerul ci moom quoi saxaaba par gàcce parce que dañoo bëgg rasulullah rus ko mu nëbbatu dem mu saale noonu quoi mel ni ko xawoon ci yooyu par exemple yox quoi rasulullah salaa salaam moo ko dàq jot ko ne ko kaay xoolal kii sama jabar la. pourquoi mu def loolu ndax mission wam moo tax kenn xamul Iblis mën na exploité lan moo tax parce que Rasulullah sa leader la muy un deuxièmement imam Bukhari mës na ñëw benn gaal xam nga moom daan kii di jëlee ay xaalis bu nekk mu jël benn gaal muy xaalis sam ay pièces d'oram benn waaye gis ko di compté waale ak moom ba xam ni par exemple exemple dix pièces d'or la yor kon dix francs par exemple exemple quoi waa ji toog ba mu yàgg rek yuuxu ci gaal gi sàcc nañ sama dix francs sàcc nañ sama dix francs gars yi ñëw mu ne ok dañuy visiter gaal bi yëpp léegi nag bu ñu visité gaal yi mais bu ñu fekkee dix francs ci imam ba imam Bukhari dañ naan du xaalisam mais moom moo sàcc waa ji après gars yi visité visité ñëpp gisuñu xaalis bi ok léegi bi ñuy wàcc ci gaal bi waa ji moo ñëw ci imam Bukhari raxit mu laa ne ko mais yow man dama la bëggoon jaar sa kaw dafa la bëgg a raw parce dama gis da nga yor moo ni ma bëgg la teg mais moo def foo dugal xaalis ba gars bi ñu bis tey gisu mu ne ko mu ne ko xaalis bi dama ko sànni ci géej dama mujj a perte xaalis bi mu jaral ma ko mu ne pourquoi mu ne parce que mission bi may dox mission bi may dox waruñu wax un jour tout am def na ko wala deful parce que du leer anyway boo comprendre loolu mooy leadership bi ma lay wax mais Matar ah, yow ah, ah. leadership nga Matar yow li Matar yow leader nga boo ko dawee boo ko dawul leader nga Matar rab nga fi junni nit topp la Matar nit xeex na ndax yow Matar mënoo dindi leader boobu Matar nit caaro yi influencé nga fa junni booy junni booy juróom-ñaar la nga influencé ci doomu aadama ci musique yow la nga la nit rayante ngir yow ci musique na nit xeex ngir yow bu fekkee yàlla dala koy toppee kon tey safara nga jëm junni nit topp nañ la ci yàlla yóbbu ci musique junni nit fecc nañ yàlla fa yóbbu junni nit agressé nañ wala dara fépp génn agressé nit wala mer wala fépp ci seen kër seen kër yi wala ay réactionnaire te yow loolu munoo koo daw nit nga koo xam ni ba léegi suñ jot ne àll tey am na ñoo xam ne fu ñu déggee sa wax dañ lay bëgg kon munoo dindi leader boobu même boo ko bëggee effacé léegi Matar. mais boo nee mais non non boo rek day mel ni ay zouk la wala. non hip hop rap rap non la benn musique boo xam man boo ma daan déglu. di nga taral leneen lu dul sa musique kenn mënu ko teg ci baar. voilà mais sa musique nag doon na fippuloo ay booy. dama lay wax sa musique doon na fippuloo ay booy. mais nit ñi dañ ko ci ñëw dara musique bu la daan bu la agressé yow boo agressé kay yow. non waxuma agressé fippu may fippu mooy dañu ay ci koñ yi laa wax. waxuma agressé de fippu bañ non mais maanaam booy génn nañ ci ay affaire tam di tàngal ñun yàgg nañ ci Grand Dakar booy yàgg nañ génn seen concert génn ay dun génn ay jaas yi di ko di ci tali di agressé waate ñun gis nañ ko yaa rapaaj yooyu yàgg nañ àndal ay booy yoo xam ne dañ doon génn di tàngal parceres yi ñun fekke nañ ko du lu nga xam ne lu ñuy expliqué yàgg nañ ay ay ay ay vingt quatre décembre vingt seen dàll yi donc yàgg seen concert ñoo woon nañ ko wax te dëgg rek muy BMG muy seen concert dafa doon bëri noon na agression loolu dañ koy nangu ñun ñëpp nekk nañ ci game bi xam nañ loolu seen concert yàgg na am ba pare ay agression am ok bande yi fa lañ doon infiltré même bu dee leen mais rappeurs yi nag agresseurs yi nag ñoom ci rab bi doon gis seen bopp. ci rab bi lañ doon lekk. non lañ doon profité. voilà exactement infiltré bi jax na waa léegi saytaane nag mooy mel noonu waa léegi Bebs ba ngay wax ak saa ndey bi est-ce que gëmoo ni yow ji yow yow erreur fatale nga def le fait nga génne sa sili bu jabar di ko woon keneen ku dul sa jabar loo lan la ci yàlla wax. ok ok léegi yow yow yow boo demee boo demee léegi ci store yi ci store yi. Hmm. ñëpp may dem ci store da ngay gis ay slip un peu partout quoi. ok tey xoolal du woon xam nga bu ñu waxee slip da ngay xalaat ne slip mais genre pancan la au fond quoi c' était pas slip carrément. non pancan sa jabar nan la solee pancan nag bépp si yow tamit jabar bu soli pancan. dama dama ne dama ne genre pancan la sama waay da nga xam yow gën la et ay eh, eh, moom moo la moo indil sama affaire jabar bu si jéem a dugg di analyser ay li daa may dugal sax ci ay détails yu kenn xamul xam nga li moo la benn tubéy la dal wax tubéy mu jeex benn tubéy la bu mu doon soloon. ah moo gën pancan kat pancan dafay àgg de. non non parce que yow boo waxee da nga may jëm ak kaañoo xam naa li ma la wuy ma. moo gën lenn nga war a comprendre xam nga lan moo am solo ci waaj. man man su pàncaane waaw déglu déglu man maa xoolal du man quoi du man xoolal bul wari gis nga loolu day mës a am ci àdduna bi mais man Ousmane Sonko xam li ma la bu ñu delloo ci moom man du loolu rek laa ko par rapport ak leadership bi la mooy négligence. non man ba xamal yo yow yow kon nekk yow waaye yow pancaa bi nga génne du négligence pancaa bi nga génne nag. Ah, man man moom ñëpp ko am ci man ah damaa négligent man moom moo tax jéem a xoolal man moom loolu du moom sama défaut la dama négligent trop. ok sa nature sa nature est-ce que nit mun na mun na di contrôler nature am ba du am faay dama lay question la est-ce que nit. mun na contrôler nature am ba du am faay. ko ñu nekkal yàlla mais nag. ah. mais nag te foofu taxawal foofu taxawal foofu. wa wala ma indi la mais nag bi ma ma déglu mais nag bi mu bañ a sori. waaw parce que nit ku nekk am na lu la yàlla bindee. ci ay faay dama ne nit ku nekk am na lu la yàlla bindee sa nature. Macky Sall mi ngi wane nature am Macky du baale Macky bu màtte du bàyyi yaa may dégg donc mi ngi wane nature am ci nguuram amul kenn koo xam ne nature am naka yàlla bindee mun na fi jéem a di ko nëbb ka làq de làq ba du am faay munul ne. léegi seytaane yi nag mun nañ utiliser loolu pour jéem la yàq xam nga yow sa nature sa na loolu moo nekk ci yow mais foofu feneen na feneen na faay est-ce que noonu mënuloon uti noonu utiliser na loolu boo wër di la yàq ne yow da nga ko doon woon kal da ko doon woon string te yow nee nga pàncaa la. mais am still here. yeah jëm di yàq moom ah. Ah, ah ah léegi yow nangu nga ni faay mun na am no léegi nangu nga ni faay dana am. Ah, wa waa Morgan ok léegi yow léegi lan nga bëgg ñu jàpp ci combat Sonko bi ñu jàpp ci léegi garaaw léegi man. non da nga ca war a jàpp nag. li ma jàppoon yëpp léegi léegi peuple bi ah xam nga yéenay peuple bi ah. ñëpp peuple bi yëpp a ngi lay déglu. waaw waaw ñun dañoo nekk peuple la ñuy xeexal léegi ah léegi dootuma. mais Beps nag bu Beps bu fi wax loo xam ne kaay dañ lay dañ lay dañ lay. mais nag wax naa leen. waaw mais attends attends bu. bu fi waxee di faaraat de. te bëgguma ma fenc nag bëgguma ma fenc ay vaar ñaa Mollah Morgun bu mu demee ci Mollah Morgun nangam nangam loolu laay bañ sama tur gi. léegi ba adduna ngi lay déglu. waaw dégg nga nañ tam adduna ngi lay déglu léegi loo wax nga ne nga ne xeex bi léegi. Sonko non non léegi bu nekkee peuple bi ñuy xeexal. Hmm. ñoom dañoo am man anyway li ma doon wax yëpp wax naa ko dañoo am problème ci. li ma doon attaqué Sonko neexul leen. vraiment neexuñu vraiment neexuñu. man moom waaw neexu leen man wax naa leen samay motivation lan la woon parce que pour yéen la quoi. dëgg la yenn saa yi nag yenn saa yi nag xeex bi mënul yomb quoi. ndeysaan lu ñu bëgg dégg rek la ñuy dégg mais léegi comme que neexulee gars yi man maa leen promettre mais bàyyi naa attaqué Sonko. ah merci waay merci waay je vous fais je vous fais cette promesse là. oh on est trop content Beps. man maa leen ko maa leen defal promesse boobu. parce que tamit mënoo xeexal peuple bi. ndeysaan di ko def lu ko naan. tàccu leen waay tàccu leen waay tàccu leen waay tàccu leen tàccu leen tàccu leen. oui lu waay na ko bàyyi lu waay jàppoon na ko bàyyi très sincèrement lii moom daw yaram quoi. non lay félicité boo xoolee live gars yëpp a ngi lay félicité ñi naan alhamdulilah ñi naan félicitation ñi naan big up ñi naan merci parce que wax ji yëpp fii la ñu waroon lañ ko waroon wàccee. non Macky Sall non Macky Sall uh, at the end of the day. macha allah man rek laa amoon. macha allah mooy lan dañoo par PS par beneen PS bu doon PDS ñu remplacé PDS par beneen PDS ana ñoom Souleymane Jules Diop ana ñoom Latif Coulibaly hmm. xool ñun lañu àndaloon di xeex nekk suñuy waay di ñu gëm ku leen laal xool tey nit ñu trahiré donc man je me suis rendu compte que suba bi ah, hmm. mais il avec nous tey ci tuddee boppam opposition quoi xam li ma ko la xam na xam naa sa yéene au lieu xool nañu xool opposition ak pouvoir mais nag comme li ma leen wax ah, bu nekkee affaire bi dafay yàq it dafay yàq l'idée de kii li ñuy boole ñu na ah. hmm. benn mataar sacré bàyyi li mu bàyyi li muy kii même bu nekkee loolu la gëm mu bàyyi ko. Euh, allah booy gars kontaan nañ Matar ñëpp kontaan nañ vraiment suñu xol na lu waay jàppoon na ko quoi très sincèrement. gars am nga grandeur. wooy nee na mont lii montré na encore sa grandeur. montré na encore sa sa sens humain bi nga am le sens humain l'humanisme qui est en toi. montré na encore une fois jullite bu nekk ci sa xol na bi nga bëgg bëggeel bi nga bëgg réew montre na sa grandeur montre na vraiment sa sa sa sens humain humain montre na encore sa sa bonne foi montre na sa humanisme montre na sa patriotisme mais mais non gars yi gars yi yow la ñu war a remercier ñëpp a ngi lay remercier vraiment lii moom ñëpp a ngi tàccu non non Morgan Morgan déglu leen baax wax leen benn affaire au moins am na benn mérite boo xam ni ñëpp ko ko war a reconnaître parce que tey jii bu dul woon muñ dafa ñafe ba lii Sénégal bi ñëpp mu am audience bi mu am tey peut-être du am opportunité pour m'exprimer quoi. ndeysaan dëgg pour gars yi mën a xam li nekk sa mbir xol. ndeysaan mais loolu yow stratégiquement non dama saluer stratégie bi gay ñëwee quoi. mooy indil gars yi au début di yegg di wàcc na gars yi dafa ay kii la après da nga dem ba ci biir indi leen conscience. indi leen tu vois je veux dire. dëgg la ba léegi gars yi gis ne ah mais non attends te loolu. ñëpp bu ñu doon xam dañoo war rappeurs yi naan affaire kii yenn kii yi mais da hmm. xam nga donc man pour man yow la ñu war a. remercier mais yow naa ne Peps yow bono man xam naa la man xam naa ni nit boo xam ni nga. ba léegi on a gardé nos contacts ba xam naa nit boo xam ne nit te bon nit yi mënuñu la gaaw a comprendre man xam naa loolu. xam nga nit yi mënuñu la gaaw a comprendre mais xam naa ne yow Peps man xam naa Peps ànd naa ak moom gis naa mu gis injustice di jooy rongañi di tuuru nii. muy jooy quoi maanaam nit boo xam ne la nit bu am yërmande la nit bu bëri yërmande je sais que kuy xëccoog da nga dëgër bopp nag da nga metti da nga dëgër bopp kuy xëccoog yow doo bàyyi mukk man ak man ak Sonko waaw man ak Sonko. yii booy booy du bàyyi bu bu dee c'est-à-dire nga ñëw négocier moom nekk ak moom ngeen waxtaan loolu day wàcc mais boo koy xëccoo booy tiraayee jar na na ko teg ci bakkanam loolu am nit yi ñoo mel noonu am na ay nit yu mel noonu de nature de nature man xam naa ne Bebs am na nu muy noo xam ni boo mel moom rek mun nga yàgg ak moom mais bay xëccoog moom rek doole mos a juboo donc man je me suis dit que pourquoi pas la ñu waxtaan trouver consensus te lii yow yaa ko wax sénégalais yëpp nekk bis ni ki tey dootoo yëy di yàbbi lu ñaaw wala lu lu bon wala loo xam ne mun na choquer le public wala ñi ñi bëgg Sonko loolu moom ñu ngi la ciy remercier di la ñaanal aussi yàlla la ci yàlla la ko yàlla fay yàlla yàlla taxaw suturaal la defal la ndam combat bi nag doo ko bàyyi mais sincèrement euh, li ñu promet neex na. bëgg naa lancer lancer un appel. ah ki ñuy wax Ousmane Tounkara. Ousmane Tounkara ok. na bàyyi. Eh, Issa Niaboré mi ngi lay nuyu sa boy Issa Niaboré. Issa waaw non kooku si man la bokk. waaw kooku si yow la bokk allah. wala suñu gaañ doomu depuis depuis suñu papa yi la est xam nga ni. Ah. xam nga ni sëram jabaru kilifa. Ah. kilifa bu yaanaamaar li ma doon créé yaanaamaar yëpp. est-ce que ah, xam nga ni euh, kilifa jabaram jabaram sax yaay a ko tuddee. xam man xam naa man xam naa loolu njaboot boobu fan euh, boobu jege naa fa. man fa ñun ñoo doon kii suñu biir mais suñu parents yi dañoo seq ay teranga depuis. yaa ngi ko waay ay doom tu vois. mais yenn saa yi xam nga yooyu yëpp ay ñoom Macky Sall ñooy indi yooyu. ñooy def dañuy am mais loolu la saytaane mais kër googu man ci bokk la dëkk. mais mais Ousmane Tounkara comme gars yi tal leen dëkk bi cocktail molotov yi affaire yooyu <laughs> gars xam nga ay wala ñëw di créer nit ñi ci seen vie privée yi affaire yooyu. Mm. xoola loolu day xajamal quoi. Mm. gars yi koy suivre ak yooyu imposer leen ko affaire boobu. ok. waaw waa Pastef fi nee nañ. waa Pastef fi nee nañ. nga débloqué leen nee nañ ànd nañ yow ñu ngi lay bëggee ñoom ñëpp nee nañ nga débloqué leen. non non man moom samay blocage laa yor may fecc. waaw nee nañ instant yi moom sànni nañ la hache de guerre. la hache de guerre sànni ah. nañ ko. débloqué leen ah. jàmm na ñooy loolu moom neex na quoi waaw. waaw non grand non grand non ñëpp la ñu kii. macha allah mooy gars machine bi machine bi nekk en face moom. Hmm. c' est Morgan gars ok dama lay wax benn affaire. Eh. xam nga bu njëkk ba. Eh, eh, Rex mi ngi lay nuyu Rex Rex nee na nee ko Rex mi ngi koy nuyu. non dañoo am mais jeex na jeex na jeex na jeex na. dañoo am biif affaire yi jeex na. non dama kontaan quoi woo ko woo ko grand woo ko woo ko bi. tey tey moom tey def nga sama journée quoi tey moom mooy sama tabaski quoi. vraiment après la pluie c'est le beau temps macha allah Matar gars lay bëggee. lii laa bëgg terminer quoi lii laa bëgg terminer right. Hmm. mooy euh, gars yi gis nga bu njëkk ba. Hmm. bi ñuy xeex Ablaye Wade. Hmm. wala bi ñuy xeex ñeneen ñoom Diouf waree mais dañ daan xeex ñi pour affaire bi changer mais bii yoon lu tax affaire bi mu doy waar trop trop trop mu dangereux mooy dañoo am pétrole ak gaz ak ay ressources naturelles yoo xam tubaab bi daf ci teg loxo ba pare. te gis ngeen dëkk yi am guerre yëpp. ñoom par le chaos par le chaos dañu fexe xoolal ay Mali par exemple dafay am ñu créé ay groupe terroriste affaire yooyu. Mm. ñoom fi teg seen Macky Sall. Mm. ñoo fi teg quoi jaral na leen nekk instant bi. Mm-hmm. donc job bi mënul nekk job dispersé quoi. Mm-hmm. gars yi mënuñu ñëw tiirandoo ci dix millions de sénégalais. Mm, non non mais tant que yi gars yi tant que jaral na leen instant média yi daf leen attention média yi média yi ñu si bëri ils sont waxuma nag journaliste yi de mais ñi nekk ci kaw en général ah yenn groupe de presse yi ñi nekk ci kaw yenn website ñi nekk ci kaw en général du ñëpp nag bien sûr ils sont corrompus ils sont avec le système hmm. donc gars yi nañ man dama tiit pour Sénégal ko en tout cas gars yi lay bëggee ah gars naan je veux numéro ñi naan waaye nuyul ñu Pepsi tol doodo boos ne mi ngi lay nuyu waaye Samba Samba mi ngi nii Samba Dia mi ngi lay bëggee gars yi kontaan nañ ko tey mais Pepsi tey moom boo def loolu nii da nga may rusloo xoolal lu ma sol xoolal yëre bu dàq ci yëre yi sol ne tey moom jàmm rek tey moom foog ma dox ba biir kër Pepsi toog ci salon bi waxtaan ak moom mu teral ma te danga ma teral tey moom tey moom foog ma doon griot quoi non Pepsi xoolal lu ma sol bàyyi te dama jël bu gën a rafet ci sama yëre musuma ko sol xoolal moom laa dajji tey bees tàq tout neuf sol ko nii ñëw jàkkaarloo ak yow quoi mënoo woon ma rusloo nga gor nga quoi rusloo woo naa ci yow mais tamit am na lu bëri loo xam ne tamit ah. non day bloqué euh, nee na day débloqué ñëpp. nee na leen Omar Gueye Omar Gueye aussi Omza. am sa doom ndey ci lu bëri quoi ci lu bëri mooy par rapport ak concept idée yi. Mhm. xam nga depuis le début quoi depuis le début. non Beps moo tax ma sañse gars yi nee nañ dama sañse ma ne Beps moo tax ma sañse sama doomu ndey sama copain sama xarit. ñëw États-Unis mu dawal otoom ay kilomètres ñëw seet si ma ndeysaan. teral ma yóbbu ma fu ne di ma bégee di ma bégal. <laughs> borom baax la quoi dara waruñu mun a boole. mais il faut ma dellu si job bi nag xam nga. waaw nga lépp vraiment jàpp nañ kàddu gi xam naa gars yëpp dinañ ko dugal xam nga dinañ ko partager dinañ ko dagg xam nga. vraiment c'est fini ko on a enterré la hache de guerre alhamdulilah. big up big up big up big up big up yal na la a fay. jaajëf jaajëf nuyul ba gars yëpp waay. yee incha allah wan la wan la jaajëf jaajëf. yee lii moom xéwal la non xéwal la li la ñuy wër. parce que tamit nekk nañ foo xam ni soxlawuñu ku ñuy dañ ne way buy fëq gaal wala way buy daane gaal kenn du ko suul ci tefes nekk nañ ci situation yoo xam ni soxlawuñu nit tamit bu ñuy yàqal soxlawuñu nit boo xam ne dinañu gàllankoor tamit même bu dee benn sax bu yeewu di wax sax di ñu yàqal ñun bugguñu ko bu ñu sañoon te koo xam ni ci ñun la bokk ci ñun la bokkoon kooku pour indiwaat ko day yombu du indiwaat ko day yomb lii moo gën di xëccoo di xeex di ko saaga di kii loolu du du du indi liggéey bi liggéey bi mooy woo ko ci jàmm ak salaam indiwaat ko delloo xelam ba mu dellu ba mu dal ba xam ni moom tey waxtaan bi yëpp wane na ni moom xam na ni waxtaan bi yëpp comme quoi que très sincèrement moom lépp mi ngi ko teg ci nee nañ ma il paraît que dégg naa donc kooku pour delloo xelam dafay yomb jafewul parce que bu fekkoon dafa am ay preuve ci lu muy wax day metti parce que day yor ay preuve mais lépp ci nee nañ ma il paraît que donc kooku noonu ci ay am na ay ay loo xam ni teguwul quoi teguwul donc kooku pour delloo ko day yomb moo tax dañ doon mocc rek di ko mocc di ko mocc di ko mocc ba mu ne karat instant yi dal na place am il est là et je vous promets que euh, BEPS bu ma paree ci moom incha allah il fera des lives et il parlera bien de Sonko diplomatiquement dina wax ci Sonko dina ci wax lu rafet il défendra Ousmane Sonko incha allah nit ku baax la. te pareeguma ci moom nag après man dinaa ko jël sous terrain di yeggali di def cette transformation di waxtaan ak moom di nekk ak moom di ko échanger ak moom di ko xamal nit yu bon yu yàq Ousmane Sonko di ko envoyé information muy wax ak yoo xam ne ñoo xam ne teguñu ko fenn amuñu ay preuve dinaa ko di gën di jege di gën a wax ak moom ba nga xam ne vraiment il va s'orienter te incha allah bu yàggutul di ngeen ko gis muy def ay live et il va bien parler de de de Ousmane Sonko il va défendre Ousmane Sonko comme nañ ko xamee woon delluwaat delloo buum ba ca boy booga incha allah kon nag gaa yi ñu leen di béggee ci nekk sa tur ak sa sant comme ni ñu ko waxee li l'union fait la force. ñun ñëpp ñoo far ñun ñëpp ñoo bokk kenn ki te ñun ñëpp suñu yaakaar ci kenn ki la ginnaaw yàlla mooy Ousmane Sonko donc dañoo nekk ci moment wu converger les forces les forces converger les forces que di diviser wu buñ lënd mi day am doole buñ converger les forces l'ennemi day daw donc instant yi loolu moo tax il faut converger les forces ñëpp autour de Ousmane Sonko l'homme idéal l'homme boo xam ni moom lañ yaakaaree suñu changement wu Sénégal moom la ñuy yaakaaree ni moom mun na soppi suñu réew moom la ñu xamee ni ku dëggu ko jub koo xam ni vraiment ñun ñëpp dañoo war a autour de lui former benn bouclier humain que di diviser wu di sànnante ay xeer ak reyante loolu du tey am nañ beneen élément bu bokkoon ci ñun bu ñëwaat kon loolu alhamdulilah ñu ngi koy sante yàlla di wax alhamdulilah xam naa lii nag du neex waa Ousmane Sonko yi euh, astafurlah du neex waa Macky Sall yi du neex tamit ñi nga xam ne ay ennemis wu Macky Sall lii moom tey du moom vraiment du sedd seen xol xam naa ne moom tey moom ñu tëddee duñ nelaw parce que da nga leen doon gis ñi infiltré live mataar yi di ci wax rek di wax rek tey ji nag ah am nañ gàcce tey waa Ousmane Sonko patriote yi ñëpp am nañ ndam macha allah alhamdulillah on a retrouvé notre frère ay divergence d'idées la woon rek mais on s'est retrouvé on a retrouvé notre frère notre frère Makhtar euh, Sy gisantewaat nañ waxtaan nañ ba juboo ci kàddu macha allah alhamdulilah ñu ngi remercier tout le ku ci nekk sa tur sa lu wax ne à bientôt incha allah one love maa ngi nuyu ñëpp ah eh, Issa what up man <laughs> naka waari gaay naka soxna si ak njaboot gi ba ngi si jàmm jaajëf béggee ñëpp a ah. jaajëf jaajëf one love. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.